asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi di leen nuyoo na mu gën a sellee di leen sargal da leen tatagal eh, ci eh, yeewu leen ajjuma ji di am yaakaar ne ni kon eh, yeewu ngeen bu baax seen nelaw itamit doy na di leen nuyu nag fa lañ daan nuyoo ajjuma ju ne nag fii ci télévision Futurs Médias seen émission nag yeewu leen tàmbaliwaat ñu fas yéene nag ànd ak yéen ba 10 heures pour vous rek distiller comme on dit généralement la bonne humeur waaye tamit jox leen information ca ba mu jotee waaye nag information bu wóor euh, information bu leer kon fii lay doon ci télévision euh, Futurs euh, Médias na mu koy defee nag ajjuma ju ne dama ci ànd ak sama nawle yi danañu yegg si nag ci kanam Bessel ba mi ngi fi soxna Mati mi ngi fi Tayfine di Marianne Silva Diop mi ngi fi Mamadou Ndiaye dana ànd ak ñun itamit ci yenn ci xibaar yi nga xamante ni daana am na ni ki démb waaye tamit duñu fàtte oustaz kon oustaz Pape Anne Pape Anne kon sama bos euh, dana rek euh, daal di yegsi ci kanam incha allah euh, mun ngeen nag daal di daas fanaana lépp luy nag jëm ci wàllum laaj boo leen am ci wàllum diine mun ngeen ko rek daal di daas xaar pap oustaz pap an ñëw ak yéen ngir mu faram fàcce leen loolu yëpp alfi itamit duñu ko fàtte parce que xam ngeen ne bu biir yi feesee rek ñëpp kontaan kon alfi moom mooy le maillon fort bu kon yeewu leen ndaxte nag lépp lu jëm ci wàllum lekk gi moo koy rek daal di lijjanti ci kanam lay ne bëgg naa ko euh, kon nag ñu daal di ñëw ci li nga xamante ni moom mooy météo parce que euh, xam ngeen ne ku ne euh, boo yeewoo faw nga daal di xaar kon li lay xaar kon ci bis bi kon nag Mawo Cissé ñu dem xool météo bés bi ak ay température yi nga xamante ni moom mooy ñëw kon ci matin bi fii ci Ndakaaru ci suba si 24 degré la ñuy rek daal di am ci Saint-Louis 21 degré Podor dana am lu toll ci 25 degré Matam 24 degré Linguère 25 degré Diourbel 23 degré Kaolack 20 degrés Tambacounda 19 degrés Kédougou 19 degrés Kolda 19 degrés Ziguinchor 21 degrés loolu nag euh, nekk nag ay euh, température yi nga xamante ni moom la ñuy am ci euh, suba si gannaaw suba si nag ñu dem ci ngoon si parce que xam ngeen ne température yi bu seddee tuuti bu ñu demee nag ba ay côté 10 heures yooyu dafay commencé nag di tàng waaye jàppale ne tey ji ci ngoon température yi dana yéeg Ndakaaru danañu am kon 29 am kon 33 degrés ca Ndar dana am degré Matam 38 degré Linguère dëkk Aly Ngouille Ndiaye dana am kon 38 degré Diourbel 38 degré Kaolack 37 euh, degrés Tambacounda 39 degrés Kédougou 39 degrés Kolda 38 degrés Ziguinchor 37 euh, degrés mu mel nii nag euh, seddaay bi dafa xaw a yéex ren waaye ñi nga xam ne ñooy spécialistes yi expliqué ko nee nañ nag lu jëm nag ci réchauffement climatique moom moo daal di indi yenn jiixi jaaxa ci wàllu météo waaye nag jàpp leen ne décembre bi moom mu duggee àla kulli ali kon danañu rek ressentir kon fraîcheur bi ci Sénégal bi yëpp Maodo gannaaw euh, météo bi ñu daal di xuus nag euh, ci lu jëm nag ci géej gi euh, ndaxte xam ngeen ne nag la ñuy wax lu ca gën a bari géej kon amul bànqaas moo tax suñu mbokk nappkat yi foofu ñuy kon bàyyi xel ci ceinture kaaraange waaye nag jàpp leen ne lu jëm nag ci géej gu fees gi daanaka tàmbali na ba 6 heures jotee ba teg kon fukki simili ak juróom géej gi nag dana feesaat bu 6 heures jotee ci ngoon ba teg kon juróom fukki simili maanaam ay booru timis lay doon. géej gi nag dana fer tey benn fer dong la ñu jàpp ne dana am kon ca géej ga bu midi jotee ba teg fanweeri simili lay doon nappkat yi xam ngeen ne kon ca ngeen ni rek la ñu wax eh, di ko mooy seen mooy seen waar kon jàpp leen ne waa météo nee nañu boo leen demee géej diggante 10 heures eh, bu teg fukki simili ak juróom eh, jàpp kon midi bu teg fukki simili ak juróom foofee nag napp gi dana gën a ñoŋ bu soobee yàlla waaye tamit boo leen delloo géej 22 heures di 10 minutes ñaar fukki euh, kon euh, simili ak juróom-ñeent bu soobee yàlla itamit jàpp 0 heure 29 foofee itamit lu jëm euh, ci wàllum lu jëm ci wàllum jën yi daanaka da ngeen ci am lu bare bari suñu buur ñun ñëpp di le roi soleil moom jóg na ba dana jóg kon jóg na ba pare sax laa war a wax ba set heures jotee ba teg fukki simili ak juróom-benn bu soobee yàlla nag dana dem noppalu ji dana soo bu 6 heures jotee ba teg kon fanweeri simili ak juróom-ñett. kon euh, Mawo ñu yegsi ci taux de change euh, taux de change bi euh, saa su ne nag ñi nga xamante ñoom ñooy cambiste kii ni mel dañ koy rek daal di nemmeeku ngir daal di koy rek xool fii ci télévision Futurs Médias waaye jàpp leen amul ba léegi changement benn dollar ñu ngi koy wecceekoo kon lu jëm nag yaakaar naa ni ki démb ci six cent et quelque euro bi moom du changé six cent cinquante cinq virgule lay doon ñu ñëw nag mao ci waxtu julli waxtu julli nag suba si julli julli nañ ko ba 6 heures jotee ba teg euh, benn simili euh, tisbaar bu soobee yàlla danañ ko julli midi euh, bu jotee ba teg juróom fukki simili ak juróom-ñaar di 12 heures 57 takkusaan 4 heures bu jotee ci ngoon ba teg fukki simili ak ñett timis bu 6 heures jotee ci ngoon ba teg ñett fukki simili ak ñett géewe moom moo cay topp kon bu 7 heures jotee ci ngoon di 19 heures bu jotee kon ba teg ñeent fukki simili ak kon juróom-ñeent lañ ko fas yéene daal di julli mais itamit am solo lool lool. lool lool lool ci suñu réew cathédrale ñoom amal nañu messe ba 7 heures euh, jotee danañu amalaat beneen messe euh, euh, kon bu 6 heures jotee ci ngoon ba teg fanweeri simili martyr de l'Ouganda ñoom kon 6 heures 30 amal nañu foofu noonu benn messe bu kon 18 heures 30 jotee di 6 heures ci ngoon dañoo fas yéene kon daal di amal beneen messe Saint Joseph ñoom itamit benn messe la ñuy amal tey bu 6 heures jotee ba teg fanweeri simili voilà kon euh, Mawo euh, merci mu nekkoon nag li nga xamante ni moom mooy téléservice bi ndaxte wax naa leen ko nee naa leen yeewu leen on joint l'utile à l'agréable na la ñuy joindre l'utile à l'agréable boo leen yeewoo nag lépp luy jëm euh, ci wàllub information ngeen mën koo am ci temps réel la bu ñu paree nag ci téléservice bi dañuy ñëw ak dañuy ñëw ak yéen kon ci li ci yéen kaay waaye laata loolu xam ngeen ne nag du ma nekkuma man dong ci plateau yeewu leen bi dañu ci ànd ak suñu ay nawle du ma ne sax naataango mais dama naan nawle ndaxte nawle moo gën a fort euh, kon ci loo gis ah Alfi nawle moo gën a fort ci loo ah, gis voilà mooy dose mooy dose bu yéeg bi waaw moo tax du ma du ma ne mukk du ma ne mukk samay naataango sama voilà samay naw samay samay nawle euh, la laa fi nekkal mais balaa may balaa may nuyu Alfi Xaadim dañuy ñëw ci ci ci besel mhm. euh, ndaxte xam nga euh, euh, nu ñuy wax du ma bañ mati mer mais dañu ne nedda ko bandum eh, maa ko assumé parce que besel nuyu naa la nedda ko bandu <laughs> yow lu def pulaa foo sokkee ko nedda ko bandu ah, loolu de mosuma koo xam ah, siri taal moo jur njéemi taal ak jaara moo jur sama mhm. ko si ma ca ndax ah. loolu de mosuma koo xam. mosoo koo xam kay. gën naa laa foog. <laughs> Bessel <laughs> alors maa ngi lay nuyu Bessel Dieynaba Seydi Bapulo euh, kade bo jontaɗo sa wi neɗɗo ko bandum haalpularen fof ko noon mbi euh, ko weltade tan mbawanmi hen dañde somi joddima e maɗa mbiɗa ƴeewama debbo jontaɗo debbo yeeso jongo <laughs> ɗum ɗon kam ko weltade tan rek euh, surtout cheikh omar foutiru tall mhm. ko nga ne rek moom mooy soxna matidia mhm. nuyu tamit nag Seydi Bapulo jeeri borom mhm. Ndar Géej ndaxte nag bu ñu ne dëkk fu mu neexee ak ceeb fu mu neexee mooy Ndar kon yow boo toggul rek ñu laaj la lu tax toggoo waa kay kon di ñuy tamit téléspectateurs yi jéena ba di wax rek mm-hmm. saa su ne mbégteeg bànneex la am rek àjjuma bu jot ñuy ànd ak téléspectateurs yi ànd ak ñoom ci li nga xamante ne uh, moom mooy carnet de voyage xam nga nag moom géej la mm-hmm. dañ ciy tibb te du jeex la wax ci moom la nga xamante ne rek uh, dañ ciy wax di bàyyi waaye dañ ciy jéem mm-hmm. tuuti nañ lool nag pour wax ci moom waaye tamit nag dañuy gëstu rek dem xool suñu mag yu baax yi nga xamante ne xam nañ ko kooku di xaadim rasul muy Cheikh Ahmadou Bamba kon nag tey dañuy delluwaat fi nga xamante ne rek foofu la dëkk sellee muy njaareem li ñuy wax akasa euh, kon ci kanam bu soobee yàlla incha allah dinañu ñëwaat kon euh, ci euh, njaareem waxtaanee kon Serigne Touba xaadim rasul ak kii di Bessel ci carnet de voyage alors Mati sama mbokk bu bees bi non mais Mati xam ne sama mbokk la mais Mati fonk naa la ah min pulaar waaye mi naa ni pulaar noonu naa ni xaydara yore naa li ah. Mhm. waaw baax na xam nga boo nag da fexe jàngi. ma ndaxte man mii dégguma woon lu bari. waaw waaye deux mille ba maa ngi commencé jàng pulaar euh, ay 2010 2011. kon dinaa mën voilà kon nee nañu loo loo voilà jàng ko ndaxte c'est important <laughs> langue langue maternelle c'est important boo nekkee mag ngay xam ne. Mhm. Euh, langue langue sa sa sa sa langue maternelle mooy euh, kàllama bi ñu lay bi nga ci bi nga juddoo. c'est important voilà làkk suñu doom nañuy làkk suñu doom yi ah, important voilà. loolu la olof di wax ni topp mbokk mooy tax nga xam li nga bokk ak moom mm-hmm. incha allah dinañ ko jéem comme ni ñu ko waxee waaye ñu nuyu leen sargal leen bàyyi leen xel bu baax a baax amati mbégte dajawaat ak mm-hmm. yéen comme àjjuma ju a nga xam tey moo di affaire euh, maanaam conteneur yi ñëw yokku nañu yokkuñu bu ci kanam tuuti nañu ànd ak ki nga xam ne moo di Gambi Diop Gambi ne àndoon nañ fi ak moom du doy douane lu ñu wax ci ñoom du doy moo tax chaque mm-hmm. a leer leeralaat rawatina ñi nga xam ne genre soxna loote yi nekk bitim réew bëgg ñibbisi seen réew naka la def ak seen bagage ba mën a ñibbisiwaat fi nga xam ne moo di Sénégal kon ci kanam daañ ko yaatal nu mu gën a yaatoo la bu baax a baax jénn ba soxna loota nag bu soobee yàlla moom danañ ko nuyu waaye nag soxna soxna loota buñ koy nuyu euh, day fekk ne ci fin émission bi la fekk yeewu na yeewu na soxna loota soxna loota maa ngi lay nuyu man journaliste bi maa ngi lay nuyu <laughs> dañuy teel a yeew Italie waaw c'est vrai que ay jàmbaar lañu voilà sénégalais sénégalaises yi wax ma sax sénégalais te moom je suis féministe mhm, mhm. euh, sénégalaises yi nekk biti réew moom macha allah ah, li ñuy wax naan zéro faute mhm. zéro faute zéro stress euh, balaa nag ñuy ñuy dem ci euh, clip bu Moustapha dañuy nuyu Alfi Alfi tey nag yaakaar naa togg cosaan nga ñu indil Alfi comme na mu koy defee nag ajuma ju ne tey tey fonde la fonde bi dama ko denc ba semaine prochaine. waaw dama bëgg. su ñuy defar fonde mu nekk fonde mbokk donc puisque démb jotumaa am mboq. waaw fii la ñu guddee bi ñuy def euh, seetu bi. waaw donc dama ko changé. nga jongo ma ci lool. waa gis nga. daal di daal di andi li nga xamante ni mooy riolé. Mhm. riolé xam nga boo ko déggee ni sombi mais sombi bi yeewu leen nag bokkul ak sombi ya nga xamante ni da daan teg ndox jël ceeb bi daal di ko ciy def. Mhm. bii xam nga ni Sofia lay defar meew muy meew Sofia. nga mhm. xamante ni riolé boo xam ne day am cannelle am li nga xamante ni mooy euh, noix de muscade. ak yeneen xeetu bagage yoo xamante ni boobu dugloog som bi boobu riolé lañ koy tuddee donc riolé boo xamante ni Sofia lañ ciy àndal jay na ba ci kanam nga xam ni bokkul ak som bi ba Mbay Juuf of daan lekk ba mu nekkee xale <laughs> ah, te assurance bi ñu si am mooy que ne que mën nga ko lekk mu teel a rees macha allah ak dimbalum ba euh, meew Sofia grâce ak épice bi nga xamante ni uh-huh. mooy cannelle parce que xam nga ni riolé soo koy faral di def di ko lekk daf lay ballonné parce que ceeb la ceeb boo xam ne dafay ànd ak meew ba pare day compact day nekk euh, éléments yoo xam ne day diis donc cannelle nag dafa nekk épice yoo xamante ni dafa bokk ci luy soulager maanaam mhm. digestion bu bu mhm. facile soo ko bëggee euh, booy togg sa riolet da ko ci def ça se marie très bien ak riolet mhm. muy cannelle épice cannelle donc moom lañ ciy def ci kanam ak yeneen yoo xamante ni buñ ci bu ñu expliquer rek ku nekk di nga ko mën a comprendre en tout cas yenn épices yi sax euh, yenn épices yi Alfi je pense que ne que il faut yenn saay sax nga ciy ñëw euh, par exemple comment bien manger pour yi seen seen njëriñ ci ci digestion ak ay fruits yu ci mel ni prumeau man xamuma ko woon mais dama ko découvrir voilà e c'est excellent pour soo soo lekkee voilà ñi nga xamante ni voilà euh, di nga di nga di mën a soulager wu sans sans problème vraiment pour ñi nga xam ne ñoom ñoo am ballonnement ak yooyu donc loolu nekkoon na astuce bu ndaw kon pour door rek yeewu leen ajuma ji donc on va vous accompagner en musique euh, le temps que kon ñu ñëwaat ak yéen ci li ci yéen kay Moustapha Mbaye Madina خير الخلق يا غار يا woppri ya xamun yónneen ba nee na yaa mata dem Medina yaa mata Moustapha Mbaye euh, pour euh, yeew yee leen euh, na mu gën a neexee na mu gën a sellee kon ci télévision Futur Média ci seen émission yeewu leen kon avec la complicité de Mao dañuy rek daal di ñëw ci li nga xamante ni moom mooy yéene kaay xëyee tey Euh, kon euh, doore ko ak euh, yéen kay groupe Futur Média di l'observateur la ñuy wax mooy ku xalam kon da ca jaay kon nag waa l'observateur ñëw ci programme triennal d'investissement public 2017 2016 la nouvelle offensive économique de Macky Sall wàllum koom-koom kon lu toll kon ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari projet ñu rek daal di tëral mi ngi ci xëtu yéen kaay bi di l'observateur ak itamit lu jëm nag ci faat ba ñu faat Fatmata Matar Ndiaye juge Yaxam Lay yóbbu na Samba Sow euh, foofee ca euh, Rëbës las euh, yéenekaay la ñuy ñëw léegi ak lu jëm nag ci projet de loi mu cour suprême ak statut des magistrats nee nañu le texte controversé à l'assemblée à l'Assemblée nationale kon projet de loi boobu nga xamante ni kon indi na réeroo ci diggante nguur gi ak waa UMS Union de magistrats du Sénégal kon yóbbu nañ ko ca Assemblée nationale Mao indil ma tribune yéenekaay tribune yéenekaay nag daal di am ab taxaw seetlu euh, ci wàllum kon nekkinu askan wi ñàkkum karaange gi waaye tamit crise sociale euh, ce qui ne va pas euh, loolu nag moom mooy xëtu yéenekaay bi di la tribune ñu am ci ay dessin yi nga xamante ni Odia moo ko daal di def buy représenter un lu jëm nag ci wàllum kon crise sociale bi ñu nemmeeku ñu wax tamit ne Samba Sow mi faat kon mi ñu ne moom moo faat Fatmata Mata Ndiaye kon am na bu dem bu njëkk foofee ca Rebeuss le populaire le populaire euh, yéene kaay euh, daal di ñëw nag ci euh, recrutement 2017 nee na ñaari candidat à l'armée daal di faatu kon ca Wakam kon nee nañu nag dañoo ce sont des blessés lors des chauffourées au foyer des jeunes de Wakam où se déroulent les recrutements des militaires ñoom loolu mën nga ko lire kon ci yéene kaay bii di le populaire mu ñu wax it ba léegi ci mbirum Samba Sow mi rek daal di kon fanaan ca Rebeuss guddem bu njëkk jour J info jour info euh, daal di ñëw ci mbirum Barthélémy Diaz euh, nee na un euh, meurtrier qui assume assume bi mu bind ko kon ci kon lu xonk coy ñu wane photo Barthélémy Diaz ñu photo itamit wane itamit lu jëm nag ci Serigne Béthio Thioune menace de mort Béthio Thioune au banc des accusés loolu mooy yéenekaay bi di jour J le quotidien le quotidien di euh, yéenekaay bi xëy Yoff Souleymane Boun Daouda Diop en garde à vue à la section de recherche nee na le DHC en haute compétition à Colobane nee nañ nag il est soupçonné de complicité de blanchiment et d'escroquerie ba léegi nag ñu gis ci euh, kon photo Macky Sall mi wax lu jëm nag ci MCA négociation d'un nouveau compact le Sénégal prépare le challenge le témoin quotidien le témoin lu jëm nag ci euh, lu ñuy duppee le rêve américain quand le rêve américain vire au drame voyage au cœur de la diaspora sénégalaise aux États-Unis ñu am reportage bu am solo bu ñu amal kon foofee ca États-Unis ak doomu Sénégal yi nga xamante ni ñoom ñoo fay daal di euh, yeewoo enquête euh, yéenekaay daal di amal nag tey jii ci ajuma ji dossier bu am solo dal di koy jagleel lépp nag lu jëm ci wàllu métital yu ñuy def jigéen ñi parce que xam nga ne tey mooy bés euh, bu ñu jagleel métital yu ñuy def kon euh, suñu kon moroomu jigéen ñi nee nañu nag l'autre insécurité beneen kon xaru kanam ñàkk kaaraange fii ci suñu réew dossier boobu mu ngeen ko lire kon ci enquête yéenekaay libération libé daal di waxtaanee nag lu jëm ci pot bi aux région après les conseil des ministres décentralisé Macky Sall dégaine 2121,27 milliards de francs CFA euh, ci biir libé nag nañu faram-fàcce lu jëm nag ci région bu nekk li nga rek euh, daal di euh, jot ci wàllu woowu waaye tamit modernisation réseau transport distribution nee nañu la BIE pose 49,2 milliards ci comptable Sénélec direct info direct info moom wàllum politique la xëyatee ji ak ndaje yi nga xamante ni leader opposition bi ñuy féete ci ku jega ñoo ko doon amal nee ñu le plan de guerre de Wattu euh, Sénégal euh, lu jëm nag ci euh, mbir mi nag mun ngeen ko lire ci yéenekaay bi di direct info réew mi quotidien dal di xëy ca bopp ba ak photo Barthélémy Diaz ñëw yi tamit lañu ko tuumaal ci wàllum Fat Ndiaga Diouf nee nañu pourquoi Barth sera absent à son procès nee nañu nag il menace de déballé grave contre Macky Sall Zoom info moom waxtaanee ba léegi lu jëm ci marathon budgétaire bi ñu ñeel kon euh, mbirum affaire u Ndiaga Diouf Barthélémy Diaz passe le témoin à Macky Sall la mu bëgg nag moom Barthélémy Diaz ci yéenekaay bi di Zoom info mooy que Macky Sall daal di dëggal kàddu yu mu yëkkati woon ci atum 2011 24 heures euh, quotidien 24 heures quotidien Mao la mu xëyee tey mooy délocalisation annoncée donc de la foire à Diamniadio foiru Ndakaaru bi ñu yóbbu ko kon ca Diamniadio nee nañu les prédateurs fonciers rôdent autour du CICES ñi bëgg suuf kon ña ngay rek daal di wër CICES di xool kon la ñu mën a la ñu mën am loolu mu ngi ci yéenekaay bi di 24 heures ñu jeexalee Mao ak yéenekaay bi di l'évidence ñoom nag ci xët bi ñu rek daal di photo wane photo euh, Cheikh euh, Béthio dina Janatul Mahwa la nouvelle affaire euh, Béthio mi ngi ci yéenekaay bi nee nañu Babacar Diouf a renié son acte d'allégeance Cheikh Bass Abdou Khadre saisi pour arbitrage loolu mi ngi ci yéenekaay bi di évidence euh, mu nekkoon euh, xëtu yéenekaay yi xëy tey di am yaakaar ne nag mbokku téléspectateurs yi di ngeen génn daw gaaw ci kiosque yi ngir dem jënd kon yéenekaay yi ndaxte noonu rek ngeen mën a def ngir kon daal di mën a jàppale taskatu xibaar yi ci liggéey yu am solo yuy rek daal di def ci mbirum taskatu xibaar googu dañuy dalal keneen ku nekk euh, suñu nawle di Marianne Silva yegsi na kon ci plateau mu defaree ba mu baax Mariam maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Diena ba. naka suba si. waaw sant yàlla bu baax. Uh-huh. alhamdulilah waaw. te eh, dafaa yoru trop Mariam. <laughs> Euh, maa ngi lay nuyu. waaw di ñu ma toogal ci plateau bi uh-huh. ci nuyoo bi suñu uh-huh. muy Oustaz bu baax waaw. di bu baax ci àjjuma ji Diena ba. la wax ni rek tey li fas yéene indi. ñu ngi ci wàllu aada yi nga xamante ne moo ñu xaw a sonal si suñu suñu suñu réew. Uh-huh. Euh, ndax dañuy faral di dégg bu timis xasee jot suñu mbokku boutiquier yi dootuñu jaay li nga xamante ne. moo di puso uh-huh. li nga xam ne moo di këriñ. Uh-huh. am sax ñoo xam ne duñu jaay saabo wala. xorom. waaw si loolu daal lañ fas yéene yëngu tey xam lan moo waral exactement ñuy tere ñuy jaay loolu bu timis weesoo jeena ba kon bu leen zappee gëm-gëm ci kanam lay doon ak Marianne Silva lépp li nga xamante ne ay gëm-gëm la fii suñum réew am na amul loolu yëpp danañ ko rek daal di faram-fàccee bu soobee yàlla ci ngëm-ngëm ajjuma ju ne lay doon <laughs> fii ci uh, yeewu leen xam nga ne nag kooku moom kenn du moom oustaz Pape An dem na Touba toj ko man ma déggee Pape oustaz Andi wala ak anglais ma ne non kii nekk te mu ne na fu ne Bessél xam yow dañ naan yow langue yëpp nga dégg macha allah. mais man oustaz Pape Hann man keroog daf maa bëlëfe. keroog moom danga maa <laughs> keroog dama la gis mu naan xocc xocc ma <laughs> naa la. <laughs> mais maa ngi lay ziar. mais waa ngi lay wër ah. xam nga télévision Futurs Médias ñoom. moom moom macha allah. Eh, yal na yàlla dolli fi laf cat. waaw waaw gërëm waa Touba gépp waaye gërëm équipe bi nag Adja Diéré Ba. waaw waaw ndax. Euh, yitti coono gi nga xam ne daj nañ ko ci Touba mais kenn ku ci nekk xër ci xër yoo xam ne jéggi na dayoo mm-hmm. comme ni ko président directeur général bëggee mm-hmm. ëttu këri diina ji mm-hmm. ku ci xewle télévision Futurs Médias ñëw ak doole. waaw waaw 50 millions la ñu dugal ci Touba mi ngi noonu mi ngi noonu ñu ngi waajal Tiwaawoon nag. waaw waaw ñu ngi waajal Tiwaawoon euh, ñu ngi fay waajal façon waajal boo xam ne. dana doy waar nag. wallaay dëkku Cheikh Sidi El Hadj Malick yàlla bu ca dugg. wallaay maa ngi lay nuyu. di la fay bu baax maa ngi lay euh, nuyu. Adja euh, Bessel. Adja Mati Alfi ñoom ñëpp maa ngi mm-hmm. euh, euh, yi bari na ndaxte temps yi am na ay vidéo yu ñuy rek daal di partagé pour wax ne mercredi am na dinaa ko lire ci kanam am na benn mercredi boo xamante ni kenn du ca kenn du ca sangu kenn kenn du ca loolu yëpp am na ay question yu bari yu ñu laaj ci wàll woo mais yéen ñi tamit nekk seen kër wala ngeen nekk biti réew boo leen bëggee am ay laaj yoo laaj oustaz Pape An mën ngeen a woote numéro yi bu soobee yàlla ngaa la dana ko affiché léegi kon ci baaw écran bi ngeen mën a wootee wax waxtaan ak oustaz Pape Hann euh, kon ci kanam waaye tamit euh, li am solo tey itamit mooy dañoo fas yéene euh, daal di maye li nga xamante ni moom mooy dépense ndaxte Sénégal daanaka metti na weer wi sori na poos yi xaw naa fëkk kon woote leen ñu may leen dépense su tey jii tey nag sama yaram dafa tàng 60 000 la yor bëgg ko rek daal di maye mun na am ma maye 20 mille 20 mille wala ma maye 30 ça dépend woote leen rek lu ñu la yéene rek ñu jox leen ko bu soobee yàlla kon ci kanam lay doon ñëwaat ci plateau bi. alors euh, bienvenue ci deuxième partie euh, bu euh, yeewu leenu àjjuma ji euh, nañu koy defee nag euh, bés bu ne wax naa leen ko dañ leen fas yéene kon daal di teral kon dimbali leen nag ci dépense su bés bi mun ngeen ñëwoo ci 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 wala 88 628 04 05 pour ñu may leen nag lépp jëm ci wàllub dépense gi woote leen gaaw bu nekkee maawo am na kenn ku nekk en ligne nga kon baaxee ñu ko kon ñu. daal di waxtaan ak moom euh, mais euh, en dehors kon euh, ci liñ leen mën a may tey jii wax naa leen 60 000 francs mi ngi fi tegu te yéen dong yéen a ko moom mun ngeen a woote kon ñu xool luñ leen koy rek daal di joxe kon 88 628 22 22 Maodo bu nekkee am na ku nekk en ligne waaye tamit boo leen bëggee ñaan boo leen bëggee tamit waxtaan ak oustaz Pape Anne ci yenn question jëmee ko ci wàllum diine mun ngeen ko itamit daal di woo waxtaan ak moom oustaz Pape Anne moom macha allah yal rek kon la wax baat bi sell yàlla xam-xam bi gën a yokk mm-hmm. boo leen ko rek jotee ci ni mu gën a neexee ci ni mu gën a sellee ci ni mu gën a rek ni ñu wax pédagogie wee ah créé naa fi beneen moo wolof pédagogie yee heureusement tey moom kii nekku fi tey. professeur professeur waaw. <laughs> professeur nag waaw ak garmi non garmi moom dafa kii mais professeur. dafa dem dafa dem euh, tukki mi ngi ci sous région bi euh, ci benn festival bi nga xamante ni. Euh, ci lañ ko rek voilà invité. Hmm. foofu la daal di nekk mais bu soobee yàlla vendredi bi moom incha allah dana rek daal di yegg si Oustaz Pape Hann xam nga luy non stress no stress land waaw land bi moom xam moom laa xam non stress land land en fait moom mooy genre wu tey waaw déet stress mhm. bu kenn stress mhm. ndax stress dafay rey nit waaw stress day indi feebar mhm. stress dafay déstabiliser nit stress di nga dem hôpital defe da ngaa feebar fekk dara darul léegi nag ñii seen kuréel gi jar nañ jàppale. non stress nee nañu àdduna bi rawatina réew mi. Mhm. bu kenn amati stress. ndax yàlla binduñu fi pour naqar. Mhm. yàlla binduñu fi yàlla nee na wa ahsin kama ahsana allahu ilayk. rikk waay wala tam sa nasibaka mina dunya mhm. yow nit na nga rafetal jëme ci sa bopp. comme ñun yàlla nit ñu rafetalee jëme ci yow. waaw te cër bi nga am ci àddina bul ko fàtte. kenn ku ci nekk ci ñun dafa am cër ci àddina waaye wuy fu ma jëm ak sama àddina yàqu wuy yàq na ma wuy sama àddina yàqu na lu tax sa àddina yàqu yaa ngi dund mhm. yàlla nee na wala tan sa nasiibaka mina dunya mhm. cër bi nga am ci àddina bul ko fàtte mhm. kon ndax stress nañ ko denn ci lépp li nga xamante ni moom mooy suñu euh, suñu kii nga ne noo ko waxee te te gis nga non stress waaw ko waxee neex na ma voilà bu kenn nangu kenn di xëy di la envoyé ay stress nga koy nga koy nga koy garder hmm? supprimer ko mu dem noo koy def nga ne nga koy supprimer mu dem bu la kenn bu euh, stress am na ñoo xam saa yu ñu xëyee ñu ngi xool ku ñu envoyé stress nga xool rek mu déstabiliser la sa journée yàpp ku la xool sa maaw nee na boo ko supprimer pare da ngay vider corbeille bi mu leer na la dara dootul desati du am traçabilité waaw di suñuy xarit nag euh, di suñuy partenaire waa non stress land euh, xàmmee nañu leen bu baax a baax ci kër gi rawatina nag jibi mi nga xamante ni saa su ne mi ngi taxaw kon ci euh, bëgg-bëgg euh, yedd ci personnel bi euh, mu ngi daw ak gauche ak droite boo ko sollicité mi ngi rek daal di dimbali kon tey mbégte la am bu ñu leen di dalal ci plateau bi ji bi maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Dieynaba Seydou Ba. Mhm. salaamaaleykum waa plateau bi yëpp. waaleykum salaam ñu di fay ñëpp waa TFM. Mhm. di leen ziar di lool ci invitation bi. Mhm. di bàyyi Demba. Demba mm-hmm. waaw Demba Ndiaye. waaw di leen nuyu di leen nuyu di nuyu waa plateau bi yëpp di nuyu téléspectateurs yi. Mhm. di leen remercier ci opportunité bi ngeen ñu may. pour ñu ñëw tey wax ci No Stress Land mhm. euh, di leen jaajëfal bu baax a baax ndaxte euh, action sociale ñun ñëpp ci war a taxaw tey yéen da ngeen bëgg a def action sociale en faveur hôpital Le Dantec euh, ngir daal di dimbali xale yi nga xamante ni ñoom ñoo am cancer loolu nag suba lay doon ci samedi yi lan moo tax déjà ngeen tànn feebar boobu cancer bi ci xale yi. waa dañu dañuy jiital di wax ni bi mooy suñu quatrième année. dañuy féete suñu quatre ans d' existence. Ah, macha allah bi mooy suñu sixième édition biir Dantec. Mm-hmm. dañu xool ni que xale yi am cancer dafa am mbir yoo xam ne dañ koy soxla ci wàllum médicament ak wàllum taxawu te naka docteur bi di waxee rek dañuy kuréel goo xam ni lépp li nga xam ne ñoom soxla nañ ko ci ay médicament mm-hmm. ñun ñoo leen koy indil te loolu nag nit koo ko wax day farlu te farlu bi ñu ciy farlu mooy. day sawar lool pour dimbali xale yooyu. moo waral ñu tàmm xale yi am cancer yi que suba incha allah ci 9h hôpital Dantec dañuy ànd ak membre groupe bi yëpp waa No Stress Land ak yenn ci suñuy donateur yoo xam ne bëgg nañ ñëw fekkee mbir mi. ànd ak ñoom dem ci xale yi yóbbu leen médicament yi nga xam ne moom la ñu soxla. ak ay friandises comme ni ñu koy defee chaque année incha allah. Mhm. loolu ngeen ci def action bi euh, nan ko defee est-ce waaw xam nga li njëkk. Mhm. si ñun lay tàmbalee. waaw parce que boo duggee ci mbir bi dañ la naan da ngay contribuer et mhm. contribuer tey jii boo gisee lu nekk ñu ngi koy def métti na trop dem nañ bay maajaal. Mhm. bon nit ñi joxe dafa métti laaj tam dafa métti. bon ñun dafa am cotisation yoo xam dañ koy def mensuel cest à chaque mois dañuy joxe ñaari téeméer bariwul mais ñu ngi toll ci mille et quelques membres. mais dinañ dem tam suñu collègues yi ak suñu parents yi ngir ñëpp am ci ngërëmu yàlla subhaanahu wa taala mhm. ñu wax leen ni dañuy jublu ci benn mbir dañuy dem dimbali ay xale yoo xam ne mhm. dañu am cancer jàppale leen ci ay médicaments ak ay friandises yendoo ak ñoom yenn saa ñu añ ak ñoom pour ñu dimbali ñu ci loolu di nga gis ñoo xam ne nag mhm. seen xol loolu lekk la yàqante bu leen ko wax ñu yëkkati seen alal jox ñu ko am na ay pharmaciens yoo xam ne ñu ngi bokk si ñun jàppale ñu ci ay médicament bu ñu boolee yëpp incha allah demee suba li ñuy dem yóbbu leen ko incha allah euh, ci kàttanu yàlla bu ñu ci àndeek jàmm jox ko xale yi yi nekk foofu noonu ci Euh, man euh, li ma bëggoon euh, laaj rek Dieynaba mooy mhm. seen association boobu en fait ndaxam non stress suñ ko déggee rek automatiquement man xalaatuma woon ne genre yooyu la ñuy def dem ci mhm. hôpitaux yi donc dama xalaatoon ne da ngeen di nekk ak nit ñi nga xamante ne dañu am stress mhm. jéem a xool nan la ñuy am solution pour stress boobu di dañ mais je pense que tamit bu ñu nee hôpital c'est vrai xale yi am cancer yi dafa metti dafay stressé trop si rawatina waajur bi nga xamante ne moom moo jur doomam est-ce xalaat ngeen tamit dem ci ñi nga xamante ne tamit mooy kër yi def porte à parce que tamit borom kër yi bari nañu stress trop rawatina nag jigéen ñi est-ce que loolu xalaat ngeen ko wala di organiser ay débat nit ñi ñëw fekkee loolu ñu xool nan la ñuy dindee stress bi. dëgg la en fait euh, ñun hôpital Dantec benn la ci si action yi. Mhm. parce que mois de Ramadan bi passé. demoon nañ ci 100 familles ñu jox leen ration alimentaire complète. Mhm. boo xam ne am na saaku ñaari bouteille diwlin cinq litres meew suukar ak yeneen ak yeneen. mais valeur bi soo ko xaymaa day nekk cinquante mille. donc chaque famille cent famille ku si nekk ñu jox la ration alimentaire complète dem nañ tamit. Mhm. hôpital leen Senghor si ay triplé koo xam ne dafa mun ay triplé. Mhm. ñu dem jox ay dons. dem nañ fii si albinos yi maanaam puune yi. ñu dem ci seen village jox leen tam ay dons ah, donc ñun fii action yi dañ koy diversifier mhm. mais comme que ñun première dañoo dem hôpital Dantec si xale yu am cancer yi mm-hmm. ñu jox leen ay garab on s'est dit que chaque anniversaire non stressant mm-hmm. loolu dañ koy def parce que xale yi ñuy toog di ñu xaar mm-hmm. donc duñu tas seen yaakaar loolu moo tax chaque année day dem foofu mais au cours de l'année am na yeneen day dem ci prison yi dem nañ camp pénal dem nañ euh, prison pour femme bu nekk Rufisque donc day diversifier ah, di féliciter <laughs> déjà comme ni ko Bessel waxee du hôpital yi rek la topp du prison yi rek uh-huh. dañuy def yu bëree bëri surtout li nga xam ne moo di wàllu mbënd mi am na yu bëree bëri yoo xam ne defoon nañ ko ci euh, nga xam ni euh, ñoom ñooy dimbaliwaate uh-huh. nañ leen jàppale parce que li ñuy def dafa am solo nit la ñoo xam ne ñoom itam dañu liggéey di mm-hmm. liggéey mm-hmm. mais teewul am na leen loo xam ne dañ ko conserver pour ñi nga xam ne wax dëgg fa yàlla parfois ñooy tollu diggante mm-hmm. ñu taxaw ci kon dañ leen di félicité man dama leen di félicité bu baax a baax di leen euh, laajaat seen ay contact parce que ñun dañuy euh, adhéré ci li nga xamante ni mooy seen page Facebook mais am na ñoo xamante ne euh, du ñu nekk ci réseaux sociaux yi mm-hmm. euh, donc naka la ñu mën a def pour mm-hmm. andi seen ay dons mën a jàppale ñi nga xamante ni ñooy xale yi nekk ci yi soxla maanaam li ngeen di yóbbu bon comme ni nga ko waxee ñun ñu ngi Facebook Nos Stress Land une autre vision de Facebook ku am Facebook suñu recherche dinañu dinañu gis mais aussi am na numéro téléphone boo xam ne naa ko jox léegi wala bëgg a joxe ndimbal tamit nous on est ouvert c'est le 77 voilà voilà itam dinañ leen bëgg gunge. effectivement pour mën a sensibiliser xale yi. voilà donc c'est le 77. 77 652. 02 75. répété ko ma bamtuwaat ko 77 652 02 75. 75 waaw. waaw xanaa comme ni ko Mati waxee rek ñu féliciter leen également mais yaakaar naa ne IGFM dafay participer bu baax ci non Stress parce que suñu kii nga xamante ne mooy suñu rédacteur en chef muy Arouna Fall yaakaar naa ne membre la si yéen day faral di ñuy faral di couvrir lu bëri seen ay activités. léegi li ma bëggoon xam mooy est-ce que yéen yaa ngi wax sànq prison Rufisque bi yéen a ngi fa demoon mais li ma bëgg xam mooy est que région yi xalaat ngeen tey jii. Euh, décentraliser daal ngeen décentraliser daal. waaw ren. dañoo indi benn innovation cest di dañ doon jëm biir Dakar kese ak banlieue mais ren boo xoolee ci ramadan bi cent famille lañ def cent famille yi euh, yenn yi dañ leen bàyyi Dakar yenn ration alimentaire yi ñu yóbbu ci famille yeneen yi ñu yóbbu leen ci région yi lu mel ni Thiès ak Saint-Louis ndax ñun ñu ngi fépp ñu ngi fépp ci àdduna bi wax ma sax bii Sénégal mais ñu ngi fépp ci àdduna bi mm-hmm. te loolu incha allah dina gën di yokk ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax parce que fu ci nekk am nañ fa ay représentants donc comme ren ñëwoon nañ ci 100 familles ñu ngi ñaan dëwoon àgg ci 150 familles ba mën def yeneen régions yi Mhm. loolu incha allah dina dina mën a nekk non stress land nag ñi nekk fii groupe Futur Média te bokk ci euh, barina na loolu man Aïssatou Mboup euh, moo ma ko loo euh, kon non stress land parce que dafa ma doon wax lu bari bari ci activité yi ngeen def en tout cas xam leen ne fii seen kër la loo leen bëgg ci wàllum njàppaleek yi ni mel amul benn problème ndaxte ji ngeen ñu lu ëpp loolu mhm. kon suba incha samedi bi dañu joxante ñun ñëpp daje ca hôpital Dantec dimbali kon xale yi nga xamante ni ñoom ñoo amee cancer ndaxte oustaz yaakaar naa ne dimbal dafa bokk ci li nga xamante ni julli da ko war a saxoo. loolu mooy moom la yàlla waxoon ni da ngay dimbalante ci seen i biir. Mhm. wa taawunu alal birri wa taqwa. Mhm. wala taawunu alal ismi wal udwan yàlla nee na ngeen dimbalante. ci seen biir mais ci ragal yàlla mm-hmm. waaye bu leen dimbalante ci noonoo mooy ci bàkkaar ñu loolu mooy waxoon naa la ko bërki démb mm-hmm. mooy def tampon mooy mm-hmm. atadamul ñu ni tadamul lawn min a taawun melo la ci dimbalante kon ñoom lii ñuy def euh, dimbalante la te yàlla ba waxoon ni waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu na ngeen jàpp ci buumu yàlla bi mais boo leen tàqalikoo mhm. leen di yàlla yaa doon xale yi nga xam ne mhm. ñoo nekk ci daara ji di feebar ci daara ji te mhm. mënuñoo faju waaw te mënuñoo faju parce que bii année bi dañ def double action sociale mënuñu boole ñaar yëpp ci benn bés samedi le trois incha allah fii ci daara bopp taalibe yi nekk foofu dañu bëgg yendoog ñoom defoon nañ ko mhm. def nañ ko ñetti yoon bii nag dañu bëgg yendoog ñoom kon niñ ko daan defee ndékki ak ñoom wàcc ak ñoom kaamil journée sans mendicité mhm. kenn du dem si taliba ñooy añ ak ñoom bu ñu paree bale foofu ba mu set wecc si euh, sëriñ bi fa rek ñu jox ko benn chaise roulante boo xam ne moom da ko soxla woon trop. Mhm. incha allah loolu yëpp taxaw na incha allah samedi le 3 la xaar incha allah ah, yooyu yëpp dina fa am allah waaw leen déparasité parce que ñun suñu biir dafa am ay yi fi nekk ak ay docteurs yëpp a ngi suñu biir. non non lépp képp liggéeykat ay cadres yu bëri ñu ngi ci biir non stress ñu ngi ci biir non stress lan on va juste profiter on va juste profiter tamit ne euh, xale boobu oustaz ñu ñaanoon ndimbal ci àjjuma yi la ñu jàll euh, yàlla kon euh, tuur na ci kon xéwal gu baree baree baree baree baree baree ndaxte xale bi finalement opéré nañu ko ci hôpital bu Diamniadio macha allah bët bi ñàkk na ko mais defaraat dinañ ko defaraat bu soobee yàlla ba du mën a infecté yeneen bët yi te loolu yëpp nag di ci gërëm ñi nga xamante ni ñoom ñoo réagir am na ñoo xamante ni bëgg nañu joxe seen tur am na ñoo xamante ni dañoo waaxu ba fii am na benn femme bu retraité boo xamante xamante ni elle m'a vraiment ému euh, parce que dafa yónni doomam euh, mu euh, dox ba fii ñëw laajte ma ñëw indi 15000 parce que nee na 15000 yooyu la yor mais da ko yéene xale bi mm-hmm. kon franchement ñi nga xamante ñoom ñoo yëngatu ci mbir mi am na kenn ku nekk Europe parce que moom nee nañu kon jibi loolu il faut ngeen bàyyi ci xel mm-hmm. ne ñoom dañuy bëgg dimbali mais duñu xam fu ñuy jaar parce que léegi jamono bi dafa doy waar di nga bëgg a dimbali nit sax mais sa à dire que doo xam fooy jaar loxoy wóor yi nga xamante fa ngay mm-hmm, a dem seeti benn kilifa bu république. Mhm. di ko wax ni dañuy dem Dantec daaw. waaw mu recevoir ñu ci bureau mu liir no stress mu ne lii yëfu caaxaan la. Mhm. waaye ñuy ànd ak suñu président daf ko tontu na ko yow ku la xam daf la xamee sur la toile. Mhm. si réseau sociaux yi. ñun ñi nga gis ñii ñun ñëpp ñun nekkaguñu association ñu ngi tegu ci tànk yooyu xam naa fi ak ñaari weer incha allah. ñun ñi nga gis ñëpp euh, Facebook la xamante. ñun ñëpp Facebook la xamante. tey dem nañ ba mel ay doom baay doom ndey mhm. lu ne am na ci am na sax ñoo am na sax ay mariage ci ah, biir macha dem nañ ñëw nañu ñëw na bettuñu biir daan teg ci jour bi mhm. parce que bañ ko laaj laajee ab ndimbal daf ñu ne mhm. waaw rek mais déggaatuñu ko ba bës ba mu xëy suba teel rek jiituñu fa waaye ba mu ñëwee toog tuuti gis ay téeméeri nit ñëpp sol t-shirt no mu jaaxle lool mu dem ci docteur bi laaj docteur bi ne ko ñun de médicament yi nga xam ne moom la ñu soxla ñii ñoo ñu koy indil chaque année. mu waaru lool xol bi tooy naka te yaay ji dafa amoon cancer. ndeysaan. mu dem jënd ji ay ay ay. garab ay non wàllum ndug euh, ndugg yeeg yi nga xam ne xale yi dañ ko soxla foofu ñu toggale ko denrée alimentaire rek yëpp. Mhm. ndeysaan mu indi ko foofu pour bokk ci bés bi. ba pare ne directeur cabinet nga toog yendu ak ñun. Mhm. di wax ne àdduna moo demee noonu rek. Mhm, da ngay nekk si dara ñii dinañ la la gëm. wallaay mais sant yàlla rek. alhamdulilah moo tax nag euh, euh, ndimbal boobu sénégalais yi daal di euh, manifester ci Mamadou Ñing xale boobu dëkk Tëngéej man wan na ma ne Sénégal dañoo am xol mais du ñu xam fu ñu mën a war a mën a jaar pour dimbali donc di ci gërëm bu baax suñu yaay Jeynaba moom moo njëkk ubbi baal bi ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni bëgguñu nit seen tum bëgguñu cee feeñ. wallaahi di def te di def te yàlla rek tax. maa ngi koy a xam. waaw waaw mi ngi noonu. xam nga xale boo xam ne ñu génne seen alal joxe. Mhm. woote. Mhm. gi yónnee seen xaalis. Mhm. ne bëgguñu cee feeñ. na am na euh, ñii nag am di woo ñoo xam ni. dinañ def te yàlla tax. wallaahi te incha allahu taala am na ñu toog seen i biir saal. seen biir néeg di na ko wala mës koo am wala seen bokk mës koo am wala ñu taxaw pour dimbali xamuñu fu ñuy fu ñuy jaar ku leen jox euh, dana àgg fi mu fi mu en tout cas damay fi fier ci sénégalais yi euh, ci ndimbal bi nga xamante ni ñu ngi koy rek daal di manifester saa su ne kon jàpp leen ne xale bi di Mamadou Gning yéen ñi sénégalais yéen a ko dimbali ba xale bi ñu mën koo opérer te bu soobee yàlla lépp luy jàngam ak lépp luy jëm ci wàllum verre rek wàllum prothèse bi muy def ci bët bi bu soobee yàlla lépp dina mat danañ ko ci rek daal di dimbali ba yàlla kon may ñu ndam bu baax a baax a baax a baax ci li ñu rek bébét euh, te def rek euh, te te yàlla tax waa Non Stress Land on vous vraiment et revenez quand vous fii seen kër la ñëw leen saa yu leen neexee waaw di xale boobu moom lu ñing incha allah non stress lan dina si def loxoom incha allah incha allah waaw di leen jox nag euh, dox daje samedi suba incha allah mhm. hôpital Dantec mhm. et puis le samedi 3 euh, daara bopp incha allah dinañ leen accompagner dinañ leen accompagner bu soobee yàlla s'il le faut sax mu nekk équipe yeewu leen yëpp euh, mm. Pape Cheikh ñoom mm. Bijou ñoom ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, euh, libi ci yeewu leen dinañ leen bunge ci mbir mi du ñu fàtte yi tamit caméraman yi ñoom ils mm-hmm. sont ci émission yi ci mel ni off Khadim Gervais yow ñu nekk ci ginnaaw ñoom ngaala ñoom ñëpp incha allahu rabbi ñoom maawo ñoom ñëpp a ciy jàpp kon nag maawo ñu xuus ba léegi ci ci yeewu xam nga bu ñu waxee bu ñu waxee waxu euh, kon jàppalante euh, bu ñu waxee waxu bëgg euh, nit te mu nekk sa nawle dañuy wax ki nga xamante ni moom mu ñëpp uuf Sénégal ñëpp uuf kon tarixa yi murit di kon Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dañu ànd nag Bessel xam ngeen ne Bessel carnet de voyage yu am solo yu muy rek daal di def dafa dem nag ba njaareem gis ngeen reportage yu am solo ñum ñu rek daal di defal bi passé dañuy àndataan ak moom daal di ñëw ñun nag ci li nga xamante ni moom mooy kon Euh, njaareem kon Bessél bisimilah euh, dalal ak jàmm. jërëjëf euh, Diène Ba comme ni nga ko waxee rek tey nag dañu demaat fi nga xamante ne rek moom mooy njaareem suuf su sell soosu mais tey dañuy ñëw nag diggante yenent Mouhamed ak kooku di. sëñ Touba xam naa li ñuy defee jëna ba duñ mhm. ci wax wax bu sori dañuy dem directement ci élément. élément ay pàcc pàcc lañ ndax am na fi foo xam ne moo fi moo fi féete woon muy fii nu nekk moo fi nekkaloon boppam ndax lii moo doon jàkkaam fukki at ak juróom yi mu am njaarim yëpp ba dugg juróom benneel bi fi lay jullee waxtu yu juróom fi lay naafila fi fi lay defe lépp xeet jaamu yàlla mi fii la ko doon defe tabax bii ngeen jàkkaar lool gaal yi mu yóbbaale woon ci géej gi ay téeréem ay adduwaatam maanaam ay bagaasam waaw yi yóbbaale woon ba muy dem maayom ba ci géej gi bi ba ñëw daaru salaam ba jóge daaru salaam dem daaru mannaan daaru mannaan lañ ko jëlee di ko yóbbu gànnaar mu am yum fa bàyyi am yum ci jël yóbbaale leen gànnaar yim yóbbaale woon gànnaar indi leen jolof yooyu yaa ñëw njaareem ñu ngi ci néeg bii kër gee bi mu ñëwee fii ba am fi fukki fan ak juróom muy néeg bële ca gannaaw genn kees googu bi mu fi amee fukki fan ak juróom la ko fi yonante bi salaa salaam fekk gane si ko am fekk moom fukki fan ak juróom sëñ Tuubaa dal di bind ne fukki fan ak juróom yonante bi am ak man fii fukki at ak juróom laa fiy am ndax benn bésam bu ne am at laa koy màggale su ma fi amee fukki at ak juróom damay génn àddina dellu Tuubaa dal di bind loolu jox ko ku ñuy wax sëñ Aliou Sëy ci magi bëkk néeg yi fi lekkoon na bokk waaw ba tey ak njabootam ñu ngi fi. ne ko na nga ko dàkk te bu ko xool maanaam mbind mi na nga ko kaadar suyeer ko ba bu mu yàqu waaye bu xool mbind mi di wax xam li ma ci bind foofu mooy bayti rasul mooy kër yonante bi sallallahu alayhi wasallam foofu sëñ Tuubaa mosu fee dugg di sol aw dàll li muy moom kër gi lépp wala mbaxana wala kaala di nekk ci boppam waaw foofa kees ak boppam la mooy néeg bee mooy bayti rasul min kulli ma min fitani wa bi abi du ñu doyal kon ci reportage yi nga xamante ni def nga ko euh, foofee ca njaareem mm-hmm. euh, saa yu ñu koy seetaan euh, yaram day daw li tubaab naan dañuy am chair de poule dëgg waa dëgg jéena ba man na xam naa damay bàyyi tey oustaz Pape Anne daal di siy wax rek ñu jéggal ma daal loolu moom moom gënal daal waaw <laughs> xam nga xam nga suuf soo xam dem nga teg fa sa mu wóor la ni suuf si wëllu yu moo fi doon daal mm-hmm. boo fa duggee di nga fa yëg loo xam ni la fa nitu yàlla liggéey bi yàlla bindee suuf yi suuf yëpp a yem waaye lay tax suuf yay gënante mhm. wéetal gënu fay wéetal borom bi subhaanahu wa taala dem ba jaww ji koy tiim leer lay doon mhm. dem ba suuf sa leer lay doon mhm. dem ba xob ya leer lay doon moo tax boo ne fa boo fa ne boo fa ne tël dugg rek di nga fa yëg loo xam ni da yëg ni ba nga juddoog léegi mosuloo ko yëg mais dafa mel ni Touba rek Touba boo fa demee tamit boo fa duggee ci dëkk bi rek mooy fi nga xamante ni genre kii bi ñu fa def mooy genre euh, porte entrée bi ñu fa def boo fa duggee rek c'est-à-dire xam nga xam nga xam nga xam nga suñu réew mii yàlla dafa ñu defal ci réew mi loo xam ni boo wëree àddina bi amul fenn nitu yàlla yi ko dëkkee tey boo àggee ca Madinatul Munawwara boo ne tëll ñu ne la Seydina Muhammad a tëdd fii yow day mel ni lépp lu bon lu newoon woon yow ak soxor bu newoon ci yow dañ koy dindi ba mu set mhm. da nga yëg ci sa xol xol laab koo xam ni leer la bu lay dugg mu leer la ni ki tëdd fii gën lu yàlla bind jaww ja nga xam ni bokkul ak benn jaww nga dundee ko màkk nga ñëw fii ci Sénégal nga dem Tivaouane dëkk Cheikh Sidil fay yëg nga dem Touba dëkku Cheikhul Khadim waaye mu gën a garaaw nga dem Njaareem ñu ne la sëriñ Serigne ba def na dëkk fii def na fi at yu baree bari ne la fii joxañ la ne la fii la doon toog di julli mhm. ne la jumaa ji jàkk ji la daan jullee mhm. nga yëg ni yow yaa ngi dox besal mi ngi doon dox ci suuf soo xam ni mu wóor que ni Cheikhul Khadim radiyallahu anhu dox na ci suuf sii mhm. def reportage foofu ñu may ko ko yombalal ko ko mhm. dana fa yëg-yëg boo xam ne jéggi na dayoo nga dugg Touba kazalika nga dem fii kër maam Limamoulaye mhm. nga dem Kaolack kër Cheikh al Islam wala kër maam Khalifa kër Alhaji Abdoulaye euh, nga dem euh, kër moom alxaaj Modou Jegéen maanaam ëttu këri diina ji nga dem cene ba mhm. ëttu këri diina ji li am Sénégal fii nga dem Nimzaat kër Cheikh ma seex Saad maanaam li ñu am ñun fii ci réew mi euh, ginnaaw Makka ak Médine ah nga dem Fès dugg rawdu Cheikhouna Tidiane yi ah nga dem Bagdad ci Abdou Khadre Jeylaani gis nga yàlla ñun ñëpp àjjana lañu gis nga sax ku laabal sa xol mm-hmm. defar sa xol mm-hmm. yéene ñépp jàmm mm-hmm. di wax ci mag ñi lu baax di wax ci nitu yàlla yi lu baax ëllëg kenn du la réglé ndax am na koo xam ni boo ko waxee lu baax am lu baax am na koo xam ni boo ko waxee safaan martabaam moo lay fàtt ndax jéere ba mën naa laa tooñ ne la baal ma nga baal ma ci sa mbaax mais yàlla def ci yow martaba boo martaba boo xam ni xaw ma ko sa martaba moo may moo may fàtt mm-hmm. al martabatu laa tusaamih yàlla ñu yàlla may xol yu yàlla yàlla fayal ñu mag euh, moo tax seen ëtt ëtt la boo xam ni jaww ja leer lay doon xob ya garab ya sax leer lay doon mm-hmm. suuf sa leer lay doon euh, boo fa duggee di yëg loo mësul yëg ci sa àddina et je pense même que au delà même de ça euh, oustaz Pape Anne dañoo war a euh, que mu nekk ci télévision yi que mu nekk ci rajo yi lañuy ñuy duppee les grands reportages dañ ko war a jagleel suñu ëttu diine yi ndaxte c'est important que ne mu nekk man mu nekk samay doom que mu nekk euh, ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni cest à que seen xam-xam màccul jëm ci wàllu woowu à travers ces de reportages la ñuy mën di gis ñuy mën di sentir li nga xamante ni suñu maam ci wàllu kii ci wàllum diine bàyyi nañ ko fa comme ni defee kon euh, euh, ca ca ca ca njaareem ñu demee noonu reportage dem alwaar xool lan mooy alwaar euh, jóge foofu voilà voilà ñu dem ñu dem ci waawan xool lan mooy histoire mam Maodo Malick voilà ñu dem itamit foofee ca Kaolack dem xool lan mooy lan mooy histoire kon voilà ñeseen voilà ça c'est important xam nga démb maa ngi doon tooñ maa ngi doon tooñ démb je pense que c'était kenn je pense que c'était Cheikh laa ko doon wax xawma man na ko mannequin challenge bi ñuy def lu tax du ñu def euh, cosaan challenge wax nga ko démb mm-hmm. ma ne ko wax nga ko démb ñun ñu créer suñu bopp cosaan challenge yow yow ñu def euh, challenge comme quoi kan gën a xam kan moo a xam cosaanam kan moo gën a xam diineem donc voilà c'est des c'est des pistes de réflexion ngay dégg ci télé yi ñuy wax ni dañu war a instaurer euh, histoire ñu ñu tedd ñooñu ci ci école yi même buñ ko mënul instaurer ba nga xam ay historiens yoo xamante ni dañuy dem di xool xale yi parce que xale yi toll nañu ay moment yoo xamante ne âge 7 ans 8 ans boo ci tollee da ngay capter mm-hmm. donc soo amee sa doom mu mu ne la maman qui est Serigne Touba mm-hmm. qui est Baba nga war ko ko expliquer xam nga ñun explication bi ñu leen di jox du doy mhm. mais historien boo xamante ne day def tuuru maternelle yi tuuru école yi di leen léebal di leen raconter ay histoire yoo xamante ne ñu baax ñi ñoo fi nekkoon mhm. mémoire la boo xamante ne xale bi su ko capté dootu ko mën a fàtte mhm. même ko dugalul suñu ay suñu ay livre wala di ko jàng ci ci comme ni ñuy jàng ay histoire ñu dem di leen ko di leen ko compter di leen ko wax parce que xale yi bu ñu dégloo dina leen non seulement dina leen jox ay références yu baax ba pare dinañu am euh, royuwaay dinañu am royuwaay parce que ñi ñu leen di jàngal leen ko wax di dem di leen ko léebal di leen wax ay Victor Hugo ak ñoom seen suñu wutee ay historiens yoo xamante ne dañuy dem ci école yi jël benn deux heures temps jàngal xale yi jox leen xaalis jox leen oto jox leen xaalis ñu dem ci école yi xale yi déglu leen ñu wax leen kan mooy Serigne Touba kan mooy euh, euh, Cheikh El Hadj xam nga loolu xale daf koy daf koy daf koy retenir daf koy retenir li Alfi wax nee na léegi xam nga lu tax important gis nga boo gisee xale yi ak ni ñuy defee jamono ji ah. xam ni ah. xamuñu ah, ñoom ñooy ñan xamuñu fan la bokk. dañu réer xamuñu lu tax. mooy li di jàngal. Mm-hmm. loolu la war a jàng. xam ñun am nañu chance bu toll nii. ñu xam kan mooy Cheikhul Khadim xam kan mooy Cheikh al Islam xam kan nañu ci. Mm-hmm. mais xale bi li nga koy njëkk defar mooy yóbbu ko jardin te xale dafa am lu xam ne moo war a jiitu ci moom. boo xoolee xale yi ni ñuy defee léegi yow dalay leer ni que ni xale yi xamuñu fan nañu hmm. jóge hmm. kan mooy kan bu njëkk ci pénc lañ daan yaroo kër goo xam ni taatu garab la ñuy toog kenn ku nekk ñu la xam ni diw mooy sa maam mais xale xamatuñ sax fu ñu c'est vrai appartement ma ko donc li Alfi wax am na solo besal yow itam ñu ngi lay jaajëfal ndagam yow yaay jooy waxatuma ak ñi seetaan tutaat njaag nee daaneel nga ko kon keneen ak keneen xam naa ne yëg na ci boppam loolu moo tax nag genre reportage yi moom franchement euh, Marianne euh, il faut vraiment ñu koy saxal dàq ci télévision yi saxal ko dàq ci rajo yi ndaxte li télévision mën ci mm. wàllum communication li rajo mën ci wàllum communication site internet mën ko ci wàllum problème communication kenn mënu ko donc il faut mettre à contribution tout cela pour euh, euh, vraiment ñu xam ñan ñan ñooy ñan ñoo ñan ñooy sooklu Sénégal en fait parce que ñoom ñooy sooklu Sénégal dëgg la Diana ba ni nga ko waxee yéen yëpp li ngeen wax dëgg la mais yaakaar naa ne ci Euh, moom dafa dafa defoon depuis Serigne Saliou bi mu fi nekk. dafa defoon benn bande dessinée boo xamante ne. parce que xam na ni xale yi loolu moo leen di attiré. mu defoon ci bande dessinée boo xamante ne dafay jàngale ki nga xamante ne moo di Serigne Touba. demoon na sax nee na ba wane won ko Serigne saaliw uh-huh. mais je sais pas xaw ma lan moo tax daal ba léegi affaire yi. Euh, jàllul mais yaakaar naa ne yu mel noonu suñ ko tàmbalee xale bi bu ibbee livre image yi da koy attiré mu jàngee ci ki nga xamante ne moo di Serigne euh, mën a def xam mag ñu baax ñi fi nekkoon bëri na ak ba ci dem ba ci ki nga xamante ne moo di Cheikh Anta Diop tey jii soo demee université nga ngay koy laajte doo ko xam. te te bi nga demee euh, fi nga xamante ne moo di Njaareem maa ngi gis bi ñuy wax ci histoire Serigne Touba ñu ngi wax ne euh, ki nga xamante ne moo di Serigne Touba euh, Cheikh Cheikh Anta dafa doon yanu benn paan paan bi diis. Sëriñ Touba jug yan ko dina dinañ ci ñëw li nga wax dëgg la parce que dem nañu tamit ci Cheikh Anta Diop digganteem ak. sëñ Touba mm-hmm. ah, voilà ceetu parce que nee nañu dañ ko yenoon benn pan bu diis. Mm-hmm. pan bi diis lool ci moom sëñ Touba gis ko ne ko xaaral ma jàppale la mu jël paan bi jàppale ko ko mu ne ko yow de si sa àdduna di nga yenu lu diis maanaam looloo tax tey Cheikh Anta nekk li nga xamante ne moom la nekk même loolu dinañ ci ñëw jéne ba man li may wax rek mooy que ñun Sénégal am na lu ñu yàlla may donc nañu fexe ba loolu buñ ko nañ ko xam parce que li gën a ñaaw mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk nasaraan yi ñoom ñu gën ñoo xam li nga xamante ne moom moo nekk fii Sénégal ay nekk fii mënuñu xam bërëb yi nga xamante ne bërëb yu mel noonu tey nga dem sëñ Touba fi mu daje ak yeneen ci Mouhamed ñu ubbi la néeg bu mu wóor la ne suuf si fii la ñu toogoon ñoom ñaar ñuy ñaan sëñ Touba gis fa yeneen ci Mouhamed yaakaar naa ne loolu amul lu ko gën adduna bi jaxasoo na jaxasoo ba nga xamante ne tey ñu ngi dégg nit ñi ñu ngi rey kii rey kii mm. yaakaar naa ne lii dafa war a tax ñu delloo siwaat suñu bopp jàngaat xam ñan ñooy ñun ñooy ñan parce que ñii dañu liggéeyal mag yi dañu liggéeyal bàyyil ñu fi lu sell nañu nekk suñuy référence wàccee suñuy xol te xam ne xiiro beeg ŋaayoo beeg ak buuxante beeg ak iñaanante beeg soxorante bi dara jaru ko fi ndaxte nit doo lekk lu dul sa wërsëg doo am lu dul li nga xamante ne yàlla suñu borom moom la bind si sa jë waaye bu fekkee da nga nekk lislaam nekk ci diine bi nga xamante ne moom mooy diine lislaam yaakaar naa nga am xolu diiney lislaam jërëjëf Adja Bessel war nga am xolu diiney lislaam ndax euh, xol moom dañ koy examiner mhm. comme ni ngay examiner sa jëmm ji euh, alxalbu yum taxanu kama yum taxanu jasadu obitaali fa innahu yasqutu aw yan aw yan jaxu ñu ni xool da koy examiner waaw da nga koy examiner comme ni ngay examiner sa jëmm ji. Mhm. def bilan ba xam da nga feebar wala wér nga. Mhm. Euh, noonu ngay vérifier sa xol xool ba xam euh, Adja Dieng ba Seydou Ba ndax man Pape Hann yéene naa la lu bon. Mhm. li nga teraanga bi la yàlla defal ah. ndax yéene naa la ko wala yéenewuma la ko wala nit am dara ndax yéene naa ko ko xool sa xol bi ba vérifier ko mu leer la ni ki ñaan newu ci. loolu Serigne Cheikh ni euh, am réew dañ koy sangat. mooy mbon gi na ci réew mi ñu jëlee ko fi. waaw xool yu bon yi na ci réew mi ak lu bon li ñuy def ci réew mi ak lu bon li bàyyi ko. ñu bàyyi ko da mooy euh, fàttali sama papa mi doon waxal ba ma demee États-Unis ma yow da ngaa féex man ko man damaa jàpp ne kenn bañu ma di. ñëpp ma bëgg. ah il faut ngeen bëgg ñëpp bañ a bañ kenn. <laughs> loolu moom boo leen ko defee ku nekk jàpp nag ne sa morom yow. man kenn bañu ma kenn bañu ma ndax yàlla ah, nee yàlla nee fii ci man alal du fi jariñ ah, doom du fi jariñ askan mm-hmm. du fi jariñ mm-hmm. li fi jariñ mooy xol bu laab mm-hmm. yow ma laa yanfa'u maalun wala banuuna illa man ata allah bi xalbin salimin yàlla nee na euh, xol bu laab mhm. mooy jëriñ fii ci man rawatina am réew nag euh, mbokk yi nañu laabal suñu xol yi mhm. bàyyi def lu bon mhm. bàyyi tuumaal gi ñuy tuumaal gor yi am na ñoo génn parce que dañ leen tuumaal euh, koo romb nga nga nga ko jàmm te dañu yar ndaw ñi tàggat leen jaal ñi nga xam ni rey nañ seen i mbokk réew mi daal oh. Euh, bu fekkee ku nu jam ñu natt dem ci docteur bi mu natt paaka bi li mu ko jam li mu dugg ñu natt loolu jam la ko yow uh-huh. boo rendee nit ñu tëral la filmer la ñëpp di la xool ñu rendi la boo jamee nit ci sole ñu xool fi nga ko ko jam ñu jam la ko fa uh-huh. bu ko defee bu ñu ko defoon benn yoon kenn dootu fi rey nit uh-huh. en tout cas euh, oustaz euh, Pape Hann li ñuy wax wàllum insécurité nag tiital nañ ñëpp ndaxte léegi nit sax dangay ngay xaw a dox sax léegi ba 18 heures jot nga ne xaaral ma daw ñibbi ndaxte léegi dëkk bi wóorul euh, kon war nañoo toll ci moment yi nga xamante ni vraiment macha allah nit war na mën a dem euh, tranquillement te du am dara li nga xamante ni euh, dañ ko rek war a ragal Mao Cissé avec ta complicité bien sûr parce que xam nga ne yow yaay patron émission bi damaa bëgg nag nga may ñu bande annonce bu kon Soxano ñu ñëw nag dalal suñu partenaire yi nga xamante ni bu nekkul woon ñoom dara du baax à l'occasion de l'ouverture officielle de la saison artistique 2016-2017 la compagnie du théâtre national Daniel Sorano présente la tragédie du Damel Makodou de 21h au national Daniel Sorano par le dramaturge Alioune Badara Bey par Jean-Pierre Leurs et interprétée par les comédiens de la troupe nationale dramatique de Sorano des artistes comédiens du théâtre sénégalais Arcos le trône après l'avoir délibérément cédé à son ni vaincu. Le combat sanglant est une véritable tragédie qui pose la problématique du pouvoir. Rendez-vous le samedi 26 novembre 2016 à partir de 21h au Théâtre National Daniel Sorano. L'histoire sur scène, le Saloum à l'honneur. Sorano vous accueille ce samedi 26 novembre à partir de 21h avec le soutien la Fondation Sonatel. Saloum Amen. alors mu nekkoon euh, waa Sorano xam ngeen ne nag euh, Sorano euh, liggéey bu am am am solo la ñuy def ngir daal di ñoŋal lépp lu jëm ci wàllum cosaan ak aada xam ngeen ne Sorano nekk na béréb bu nga xamante ni nee naa Sénégal kenn mënul wax aada ak cosaan rawatina nag ci wàllum tayaat te waxoo mbirum Sorano loolu moo tax dañoo fas yéene ñoom daal di def présentation benn film film boobu nag mi ngi tudd la tragédie du demel Makodou film boobu nag turu film boobu bu leen ko déggee xam nañ ne kon moom mooy turu livre bi nga xamante ni Euh, suñu papa suñu xarit euh, euh, suñu suñu lépp di suñu nijaay suñu lépp di Alioune Badara Bèye nekk président des écrivains du Sénégal moom moo ko bind léegi livre bi la nag acteurs yi nekk kon ci théâtre national Daniel Sorano fas yéene kon daal di interprété Ibrahima Mbaye boo leen déggee peut-être tur bi doo leen xam euh, Ibrahima Mbaye ban la mais dama bëgg ngeen xool bu baax image yi parce que ku gis kii xam ne Ibrahima Mbaye mi yàgg na jouer ci ay pièces yu am solo comme la tragédie du la tragédie du roi Christophe ku ko ciy gis muy jouer dinga xam ne véritable acteur li ñuy wax naan comédien plein nga kon Ibrahima maa ngi leen nuyu di la dalal ci plateau Yeewu Leen jërëjëf merci beaucoup ak euh, di jaajëfal euh, waa kër gi waaw ci ci jàppale bi. ak ci taxawu bi ak ci partenariat bi. donc Sorano ngi bég lool. par ma voix di leen wax ni kontaan nañu lool ci ci partenariat bi. Mm-hmm. di di leen wax yéen it waa waa yeewu leen yeewu leen ak jàmm. wallaay yàlla yàgg yeewoo ak jàmm. <laughs> yaa ngeen jëf waay. yow it nga yendoo ak jàmm. ak saa yeewoo ak jàmm Ibrahima te nu bokk waaw. alors la tragédie du euh, lan lan tax choix wu euh, livre bi nga xamante ni Alioune Badara Bèye moo ko moom ku ne xam na ni aujourd'hui euh, bokk na ci dramaturge maanaam bindkat yi nga xamante ni yu gën a mag la. Euh, ba pare nag mu nekk euh, koo xamante ni tey kilifa la ci kër googu ñuy wax Sorano ndax mooy président de con du conseil d'administration léegi nag mu def proposition bi ngir bëgg lëkkale ñaari entité yoo xamante ni je crois que ñoo ànd sax benn lañu. ndax Arco ak euh, ak Sorano. Euh, Sorano am na pàcc boo xamante ni ci théâtre la ñuy liggéey muy la troupe dramatique arco it di liggéey ci théâtre mhm. ñoom sax d'ailleurs ñoo njëkkoon euh, def euh, li mu mën a tuddee pilote pilotu spectacle bi mhm. par la suite Alioune Badara Bey waxtaan ceeg directeur ak Jean-Pierre Lers mhm. pour que ñu mën ko gën a yaatal gën ko jëmmal looloo waral ñu lëkkale Sorano tey ak ak Arco pour ñu porter n'est-ce pas cette pièce là mu nekk nag une une une pièce très lourde. waaw waaw parce que conflit de génération. je pense am ci diggante. Euh, pape ak ak ak doom. donc conflit de génération boobu euh, nekk na lu amoon ci temps temps euh, nguur. yaakaar hmm. naa la ñuy wax loolu itamit nekk li nga xamante c'est des questions d'actualité. en en résumé mën nga ñu wax rek en résumé lan mooy substance pièce bi. waaw Damel Makodou ca ci ci jamono jii ñuy wax nii muy benn époque. donc doon régné ci Kayoor. Euh, nijaayam nekkoon dans le Saloum. Kumba Ndaam ba nijaay ja wàccee bàyyiwul doom. moom muy jarbaat lenxe mu war a donn waat foofu comme buur nekk buur ci ñaari ñaari royaume euh, xawoon diis loolu mu jël doomam Sàmba Lawbe yebal ko foofu mu toogal ko foofu jamonoy dox ak euh, ak colonialiste yi fi nekkoon dem ba euh, damel ma ko du ci boppam amatul sax fu mu dëkk léegi kon fenn rek ci des mu war a delluwaat Saalum di war laaj doom ja nag la mu ko dénkoon doom ja nag foofu nag la conflit bi tàkkee doom ji ni ko nag lii moom yaa ma ko dénkoon waaye taxaw ma pour joxe ko hmm. jaamarloo daal di am mu rey baay ba donc euh, loolu mooy trame bi euh, mais comme li nga wax rek bare na lu bare lu muy wundu nag hmm. c'est-à-dire man je pense que histoire la Euh, lu lu amoon la mais PACE tey jii boo koy xool euh, di nga gisaat ni euh, am na importance am ndax tey bare na ay conflits yu mel noonu mooy comme conflit de génération yi nga wax yi entre baay ak doom ci ci jamono yu ñu bokkul ak xalaat yu ñu bokkul du dëgg mu indi ay yeneen la yoo xamante ne peut-être du àgg ba ci rey mais dina àgg ci taxalikoo àgg ci yeneen yeneen kii daal donc mm. bu ñu defee transfert bi daal pour actualiser thème boobu mhm. da ngay gis ni même sur le plan politique waaw da ngay gis ni am na des fois euh, dafay am yu yu demee noonu daal. Mhm. waaw entre. Ah, Alioune Badara Beye daal visionnaire la li mu def ci livre bi daal dafa mel ni euh, que ne bii la woon mais que ne dafa nekk question yi nga xamante ne ba léegi dañ ko actualiser daal maanaam dañ ko f cinq effectivement parce que yamul rek moom ci histoire bi nga xamante ni moom la moo fi amoon dafa dem au delà de loolu ci mbindam dem ba boo xoolee wala nga nga gën a am une lecture en profondeur da ngay gis ni ba ci mbind mi sax dafa dafa dafa nekk mbindum tey waaw dafa dafa actuel quoi par rapport à l'histoire nga xamante ni moom ça date de de de Mathusalem man de euh, question bi ma am mhm. euh, xam naa du concerné directement lu jëm ci pièce théâtrale bi mais yow la concerne Ibrahima Mbaye ndax man dam li may seetaan yëpp daal yow si wàllum ay tragédie drame daal yow da ko bëgg li may faral di gis lu nekk drame moom mooy sa fort macha allah ma bëgg xam est-ce que yow si sa carrière jot nga si jouer ay pièces yoo xam ni mbégte lay wane daal waaw boo boo nekk école des arts mhm. ci sa formation da dem ba toll foo xamante ni dañu lay canaliser ci benn ci benn euh, li ñuy wax un genre théâtral mm-hmm. wala book un genre donc euh, en fonction de ce caractère ak en fonction de tes aptitudes lañ lay lañ lay calani canaliser mais cela n'exclut pas que formation bi moom euh, da ngay def comédie mm-hmm. da ngay def drame da ngay def tragédie mm-hmm. man nag yàlla dafa dogal ñu ma spécialisé wu en tragédie moo moo waral euh, bi may bi may génn même maa ngi présenté suma ay œuvre mhm. ci tragédie donc euh, ba am ba waaw ba am euh, un premier prix en tragédie ah, mais j'ai fait d'autres films yoo xamante ni en comme comme tout comme tout bon tragédien mhm. Mhm. parallèlement des fois nit ki sax day jàpp ni munu munuma loolu dafay dafay xaw enfermé wu ci benn carcan mais au fur à mesure ngay dem tu découvres que ni euh, li li ñuy reeloo am. Hmm. am nga ko sax. mais dafay laaj dafay laaj liggéey. wala ñu jox la liggéey boobu nga mën koo liggéey mais nag bu fekkee da nga mel ni comme man. Hmm. dal ci Sorano depuis mille hmm. boo bokk léegi ay pièces ay ay rôle tragique rek laay gàddu. bon j'espère que un jour un jour Alioune Badara Bèye wala Seyba Traoré dañ ma jox rôle te te ni ñu koy defee te ni ñu koy defee dafa c'est c'est impressionnant mm. ni ñu koy defee voilà c'est impressionnant parce que man yàgg naa ñëw théâtre national Daniel Sorano toog ci ruq yi man ak Madeleine donc di leen seetaan ngeen di répété wala di leen seetaan vraiment seen représentation tu le mm. fais extrêmement bien ah, kon bul changer dara ci kon ci li nga xamante ni moom ngay euh, liggéey yow aussi metteur en scène nga duñu ko euh, fàtte seen événement bi donc mun nga rappeler juste euh, la date et puis l'heure également pour les gens yi nga xamante ne bëgg nañu sañow seetaan euh, kon euh, Mao la tragédie du Damel Makodou bi nga xamante ni waa euh, théâtre national Daniel Sorano dañ ko rek daal di représenté donc samedi la mhm. incha allah à mhm. donc au national Daniel Sorano mhm. sous la présidence du du du premier ministre donc avec tous les grands dignitaires de ce pays yéen à la première rangée du dëgg. waa TFM. dinañ ñëw entrée du dëgg. entrée 2000. waaw entrée 2000 la. yomb na yomb na kon nag na ñëpp léegi am culture ñëw seetaan si. Euh, kon théâtre foofu ca théâtre national Daniel Sorano. incha allah ñu ngi leen di xaar. dinañu ñëw di di nuyu bu baax nag euh, Pape Anne Madeleine Madeleine mi nga xamante ni boo ñëwee Sorano moo lay. talal moo lay tatagal kon Adja euh, Madeleine euh, taal sama sama njëkki boobu kon leen ñu ngi lay rek daal di nuyu bu baax a baax ba léegi nag Mao j'espère que am nañu kon benn téléspectateur en ligne parce que quand xaalis bi mi ngi lakk mi ngi lakk sama loxo yi il faut ma joxe ko allo <laughs> Euh, dafa mel ni dafa dem 88 628 22 22 allo allo ah maa waxoon leen téléphone bi ana ana ana ana Kumba allo allo soxna si. kon dinañ ko jëlaat ci kanam mun ngeen a insister ngeen woote ci 88 628 22 22 xaalis baa ngi lakk sama loxo yi dama ko bëgg a joxe 88 628 65 65 wala 88 628 04 05 allo bu nekkee am na kenn ku nekk en donc maa amaguñu ku nekk en ligne mais en attendant dañuy rek daal di waxtaanee ci euh, douane mi nga xamante ni euh, dañoo rek euh, daal di indi ay coppite yu bëri bëri ci seen liggéey xam ngeen ne douane léegi communication ba dafa dox loolu ajaratu mati daal di kon dem dajeek ñoom ngir rek ñu daal di indi ay leeral ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ne nañu ci ci ci conteneur yi kon ajaratumati mati waa allo allo oui ça va na nga bi waaw alo naa def. allo waaw ça soxna si. ça maa ngi fi. ça na buuxante bi de tey moom ça va. ba naa def. maa ngi fi sant lu bari. alhamdulilah. noo tudd. man Xawa Sow. Xawa Sow ah yow sama yaay nga. waaw. ah Xawa ah, bëgg naa la. ah maa raw. ça va. ça alhamdulilah. alors loo bëgg dépense nga bëgg wala question nga bëgg laaj Ah, Awa Sow kon di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax buxante bi la moom moo tax kon eh, ligne bi di eh, kon daal di dagg mais ba léegi mun ngeen a woote ci 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 laaj wala xaalis lu leen ci bëgg rek tey ñu daal leen koy defal kon ajaratu Mati ñuy am keneen en ligne. <laughs> en ñu ci plateau bu ñu ko séddoo. <laughs> ah bu séddoo ko. ah, ah waaw soxla naa ah, <laughs> bu kumba nangoo. xel ma ku ma daal bu nangoo ku ma bu yaa daal bu nangoo daal ma ma pàcc ko léegi fii nii ci plateau bi. man daal soxla naa jënd ndox daal. ndox bi ma yóbbu pour ma ñibbi. waaw soxla naa ko ah, jënd de. <laughs> d'accord balaa loolu nag keneen di ñëwaat ñu dem rek ànd fa nga xam ne moo di douane douane nag ñu déglu ci ki nga xam ne nag moo yox seen communication di ki nga moo di Gàmbi Jóob ku nekk xam ni fi ñu toll nii li nga xam ne moo di wàllu euh, dédouanement yi dafa euh, maanaam métti lool ci seen ñenn ci ay sénégalais waaye ñenn nit bu ñu bëggee ñibbisi naka la ñuy def ba indi seen i bagage ak nag mooy li nga xam ne moom moo di euh, réglement yi nañu ànd ak moom dem xooli ko dellusiwaat ak yéen. Euh, moo gën a siiw waaye tour bi ko loi bi jox mooy commissionnaire en douane agréé maanaam la nit la koo xam ne liggéeyam mooy ñëw déclarer ci douane indi ay kayit lu ñuy wax déclaration en douane déclaration boobu nag dafa war ci bépp marchandise buy dugg walla buy génn ci réew mi muy fay wala mu bañ fay conteneur yi bépp bi nga xam ni war na dugg ndax li nga yeb su fekkee marchandise bi li nga ciy indi baax na contrôlé nañ ko war na dugg su fekkee da indi marchandise boo xam ni dañ koy tere am na loo xam ne xel xalaatu ko comme médicament bu bon muy contrefaçon wala ay drogue wala médicament boo xam ne lekk la waaye dafa yàqu wala amoo kayit bu ñu la laaj bu firnde di wér na kooku du dugg ci réew mi loolu mooy liggéeyu douane ci frontière yi ndax liggéey boobu nag dafa aaju ci mission yi ñu jox mission bi mooy mission fiscale d'abord loolu moo jiitu mooy état bi dafa ñu fi teg pour sas ñu ñu war ko indil ay recettes pour mu def budget bi ci loolu douane bokk na ci suñu xaajoon budget bi tey ñett xëy na benn bi douane moo koy itti douane Sénégal moo gën a cher mën na am yeneen dëkk yi appliqué wuñu li ñuy appliqué te ñoo bokk su région bi. dafa am texte ak téere bu ñuy wax tarif extérieur commun. Mhm. tarif extérieur commun boobu CEDEAO mooy kuréel gi nga xam ni moo ngànk fukk ak juróom réew ci Afrique soo jant ñoo ko bokk ñoo bokk benn téere. Mhm. muy tarif extérieur comme tarif bi ñu war fay Sénégal moom la ñu war fi Togo war ko fay Ghana war ko fay Nigéria soo demee gis produit bi cherul kon xëy na ñoom dañu appliqué wul tarif bi ñu appliqué. ndax ñoo bokk même tarif tarif extérieur commun moom laa lay wax la document la moom moo tënk lépp li ñuy wax classification des marchandises système harmonisé organisation mondiale des douanes moo ko tëral organisation boobu nag 180 pays ñoo ko bokk léegi nag li ñu war a fay dëkk yu nekk dañ ko saytu bind ko ci téere bi su dee CEDEAO wala noonu la demee léegi nag soo ñëwee ci route bi wala nga ñëw nga jaar ci suuf wala nga jaar ci géej lépp a yem ci douane ndaxte li nga war fay dafa aajowoo ci marchandise bi ngay dugal ak jamono bi nga koy dugal ak tarif bi mu nekk en vigueur a déménagement régime douanier la effet personnel itam régime douanier la mais déménagement dañ koy prouver balaa ngay ñibbisi su fekkee réew mi nga nekk Sénégal am na ko ko fa nekkal wala daal même suuf amul réew ambassadeur waaye am na consulat mën na am réew yu wër réew ba nga nekk am na kilifa yoo xam ni diplomatie ñoo leen fa teg dangay dem nga déclarer foofu say bagage ñoom su fekkee dañ la defal certificat de déménagement soo ñëwee bagage yooyu du fay douane soo amee itam ay effet personnel yoo xam ni vraiment ñëpp xam nañ lii c'est usagé maanaam nga indi sa benn ordinateur indi sa benn téléphone indi sa benn portable tablet waaye nag soo bëggee indi fukki ordinateur ni effet personnel la day xaw niru mbirum njaayeen waaw moo tax léeg-léeg loolu dañ koy taxé te marchandise bi ma fàttali leen taxation bi teguñu ko ci dañ ma ko may wala dama koy maye marchandise bi la ñuy taxé yow yaay jàpp ni da koy maye wala dañ la ko may mm-hmm. waaye marchandise bi la code bi wax dañ ko war taxé léegi nag marchandise boobu mën na nekk ci benn état usager ñu bañ ko taxé wala mu nekk ci état boo xam ne dafa yàqu loolu nag ay expertise moo koy wane waa duwaan suñuy partenaire lañu waa duwaan suñuy xarit lañu euh, kon bu ñu ñëwee ci yeewu leen di leeral kon ay mbir jëme ko ci conteneur yeeg yi ni mel euh, kon mbégte lañ ci am ajaratu mati mais ñu am ay leeral yu ñu indi rawatina nag ci yéex-yéex yu ñu nemmeeku ci génn conteneur yi waaw ci yéex-yéex yi ñu nemmeeku xam nga ni maanaam conteneur bu weesoo benn fan rek magasinage daal di tegu am na loo xam ne que ni moom wax na ko yaakaar naa ne sénégalais yi nga xam ne ñoo koy seetaan comprendre nañ ko bu baax a baax ndax nag xam nga ni fañ koy teg bërëb bañ koy teg maanaam dañ koo tabax defar ko xam nga tonnage yooyu ci faral di teg daf koy faral di yàq mm-hmm. beneen bi mooy fan yi dañuy faral di wax ni duwaan bi dañ koo yokk dañ koo yokk ay information la yoo xam ni xëy na nit ñi ñoo jàpp ni douane dañ ko yokk mais fa mu nekkoon ba tey mu ngi fa mm-hmm. aussi ñu ne duwaan Sénégal dafa cher mais nañ jàpp ni euh, benn benn benn li nga xam ne moom la Afrique yëpp di def mm-hmm. moom la Sénégal di def xëy na tamit euh, ñoom la ñuy def Sénégal defu ko parce que dañoo jaar ci li nga xam ne moo di bi li mu wax noonu lañ koy appliquer moo tax mais nag ñi nga xam nit euh, am na lu mu leeram mooy ñi nga xam dañuy bëgg i bagage a baax mhm. mais bu fekkee ne Dieynaba dafa fukki téléphone leer nañu ko Dieynaba du jëriñoo fukki téléphone yooyu yëpp donc loolu mooy tax boo ñëwee ah waaw mooy mooy fausse <laughs> déclaration yi nga xam dañ koy faral di def parce que dañuy déclaré sama bagage kër laa indi indi fukki machine indaale fukki téléphone mhm. indaale fukki télé ci bëgg a business. ah waaw. <laughs> léegi nag comme <laughs> waaw non xam naa gaynde ba parce que xam naa te mu dem États-Unis ne leen damaa bëgg damaa bëgg. sama papa daa bëgg a ñibbi si waa <laughs> yombal loolu parce que dañuy xam ne dañ lay jàppale yow mais bu fekkee da bëgg def jënd marchandise comme Pape ni mu ko defee rek mm. bëgg indi marchandise yëpp ñëw bëgg koo eh, jaayaat man de musuma koo jox man de musuma koo jox ah. saa yu demee courrier la lay envoyé. yónnee liggéey bu ko mais mais Alfi yow la Alfi kii yow la. mais Alfi Serigne Pape Cheikh nuyu nañ la namm nañ la ñibbisil. mais oui ma nag ñibbisil nag namm naa la nag. mais oui ma Alfi li nga ci xamul. démb hmm. man ak moom dañu doon wax dama defa lis. dama lii laa indi dama bëgg nga dispatché ko. waaw akaba Bataclan dafa jógee dafa jógee Atlanta dem Bataclan waaw waaw ak euh, bu ñu nee nag wax ki jënd billet bi ak li <laughs> war a yoon bu gudd boobu mais Pape Cheikh maa ngi lay def ni sooy indi nga indi bu nekk benn mais soo bëggee indi man li nga may indi mën nga koo indil mais boo bëggee indi alfi ah, ak ki nga xam ne moo di jay na ba boo ñëwee douane bi dina <laughs> man li ma euh, tuuti laa la indil parce que yow États-Unis nga jóge jay na lii muy def dafa am solo uh-huh. uh-huh. li ñuy euh, versé ci keesu état bi uh-huh. mooy fay jàngalekat yi mooy defar réew mi mooy defar hôpitaux yi mooy defar tali bi douane bu njëkk daaw ñu weesu ay cinq trois cent milliards par année mbaa mm-hmm. trois cent cinquante milliards mm-hmm. directeur Sénélec bi mm-hmm. Mouhamed Makhtar Cissé bi mu yore douane macha allah première année am dafa ñëw def versé quatre cent cinquante neuf milliards fekk douane boobu àgguñu woon trois cent cinquante milliards deuxième année Makhtar ñëw def cinq cent et quelques milliards bi mu yoree douane yëkkati ko ba douane jóge fi Pape Ousmane ñëw fi Makhtar ne mu def lu gën a kawe def lu gën a baax parce que Maxtaar ñëw def système gaynde moo ko indi. Mm-hmm. wan douane bi façon boo xam ni douane Sénégal gën a yëkkati. Mm-hmm. gën a respecté douane Sénégal. dëgg la euh, am adduna bi gën a respecté douane bu Sénégal. yàlla yàlla jox leen. Euh, colonel yoo xam ni ay liggéeykat lañu. Mm-hmm. ñi nekk ci chef de bureau yi. Euh, yàlla dëgg na am na ñu ma ci xam ñoom Amidou Ndiaye. Abdourahmane Dieye. ak seen i nawle yi nga xam ne ñu ngi ci biir douane bi. nekk ay jàmbaar yoo xam ne liggéeyal seen réew a leen ñor. kon ñun ñi nga xam ne ñoo indi conteneur Mm-hmm. bu ñu waree am bénéfice cent mille francs mm. waaye nañ jël quarante mille yi jox ko mm-hmm. doom dina ci am mm-hmm. say tante dina ci am say mbokk dina ci am réew mi dina ci yëkkatikoo waaye indi conteneur war a fay cent nga ne fa di lijjanti di pour fay mille francs loolu jaaduwul wala loolu ñuy wax douane dañoo am non mais non noonu la <laughs> li li oustaz Pape Hann wax dëgg la euh, parce que en fait xam nga euh, ci incha ci émission yu ñu dëgmal dañoo invité kenn les douanes di Boubacar Camara euh, nekk kon euh, euh, moo dégg moom mooy PCA wu Soko Sims mhm. moom la ñu invité moom la ñu invité pour les affaires de la cité may defaaleel maamu de publicité su ma paree jaar bureau <laughs> ah. donc ba ma ko dajee moom am na lu bëri lu ma comprendre ci douane mhm. loo xamante ni musuma ko xam mhm. donc juste pour dire que ne que douane dañoo am intérêt sax di communiqué parce que comme lu wax système gaynde bi mu wax Boubacar Camara bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko gën a ñoŋal jëm gaynde lépp lu jëm euh, ci ni nga xamante noonu la ñuy defee performance mhm. ci wàllum douane xaalis bi ñu fiy dugg euh, kon yaakaar naa Marianne dafa war a mën a jot kon waa douane wut ay rubrique wut mhm. ay ay ay communication bu doy ci télé yeeg rajo yi euh, ngir daal di fësal kon li nga xamante ni moom rek la ñuy daal di liggéey waaw ni nga ko waxee jeena ba noonu la waaye man de li ma jaaxal mooy Oustaz Pape Andé mm. li mu ci xam sax yaakaar naa ne ñun non dama am sama sama non samay maanaam dama man réew mi daf maa di leen topp. Mhm. kuy def résultat. da nga koy wax da nga koy wax da nga koy félicité réew mi xam ni kii mhm. jàmbaar la. ndax Makhtar Cissé mi yor Senelec xam nga euh, sunu ko bii wàññi non moom kay li mu liggéey macha allah ko mhm. bi mu ñëwee douane àdduna bi yëpp yëg ni douane changement am na fi bi mu jugee douane ki ki ñu ko teg ci loxoom moom itam di ci def kémt lay ay at yële a nuyu ah, colonel Demba Seck waaw waaw <laughs> <laughs> nuyu bu baax ma bàyyi ah, kon naa ko gis gëj naa kaa dégg ñu bàyyi a baax mhm. mais jéena ba mhm. ma bëgg bàyyiloo xel mhm. li nga xam ne moo di intermédiaire parce que loolu mooy waral parfois dédouanement bi di métti ci ñoom la parce ñëw ci mati mati di ci dàq benn cinq cent mille douane ne ko un million cinq cent mu ne ko deux millions parce que Macky loolu la ciy dàq mm-hmm. maanaam nit ñi dañuy dañuy osé di demal seen bopp di lijjanti seen bopp seen i këyit mm-hmm. di lijjanti seen bopp seen i bu ko defee maanaam bu ëllëgee doone diw moo ci defoon li diw moo ci defoon li donc bu ñuy def loolu rek incha allah rabbi ñuy nuyuwaat nag bu baax a baax ki nga moo di nga xam ne mooy jolof jolof bu mag bi ak ñëpp ñi nga xam ne rek ay douanier lañ Balla euh, yokk si loolu xam nga bu ñu nee douane euh, balaa ngay xam douanier yi ñu ngi liggéey dëgg ñu ngi def seen liggéey. Mhm. nga dem fi nga xamante ne rek moom mooy frontière yi. Ah. parce que des fois da nga waa surtout loolu. Mhm. lu ci mel ni frontière euh, frontière yi nga xamante ne ñoo nekk ñoo wër Sénégal mhm. du ma ci lim benn. parce que da ngay gis des fois douanier dañuy civilu. man am na horaire boo xam ne dama dajeeg ñoom mais ay moto la ñu yor. naan leen waaye yéen ngeen di wut si àll ci diggu àll bi nii voilà ñu ne ma ñu ne ma yow xamoo ñu ñu ne ma ñu ne ma yow tamit lan ngay def ci ñu ne ma ñun ay douanier lañ ma ne ko mais ay douanier ba si biir àll bi mm-hmm. mu ne ma gars yi bu ñuy trafiqué si yoonu suuf yi la ñuy la ñuy jaar donc mm-hmm. ñun tamit dañuy civilu mel ni ñuy béy xam nga ku dem ba di def loolu kooku dafa bëgg li nga xamante ne moom mooy réewam waaye tamit bëgg li muy def ba mën a apporter quelque chose li nga xamante ne moom mooy suñu réew gars yi nañu bàyyi yoonu suuf yi ñuy jël mm-hmm. na nga dem dédouaner mhm. bu ñu dégg douane rek ñu foog ne lu rëy la lu rëy la mhm. parce que boo demee benn yére bu nekk am na prix bi nga mhm. xamante ne moom lañ koy dédouaner kon nañu dem di seeti douane ñu xam ne loolu ñuy fay si ñoom lay dellu si waat jeex na voilà kon nañu bàyyi yoonu suuf bi en am solo la ñuy def ñoom douane yi euh, di leen ci gërëm di leen ci sant di leen wax nag ne leen ñun ubbil nañ leen suñu antenne nañu ñëw nag euh, euh, ñu liggéey ci bu baax a baax ci seen communication parce que dafa rek daal di jot jot que sénégalais yi kon mën a daal di am la bonne information. Mhm. quand il mais aussi euh, fi fu ñu war a mën a leen yéen ñëpp TFM groupe Futurs Médias <laughs> ngeen ñëw ngeen <laughs> communiquer si communiquer ba lu baax di liggéey ajaratu dee na nanu ko wax ne diw mi. Mhm. mi ngi liggéey mi ngi mhm. def lu baax. mais ku gis nee na nee na ngi. da gis koo xam ne day liggéey di def lu baax. ba dee duñ la wax sax jërëjëf. wut benn lobby boo xam ni. Ah ñoo lay bëgg a yàqal dem télévision yi mbaa rajo yi mbaa si internet yi gi ñoon wax fii démb rek waaw mhm. euh, pour pour yàqal te kooku yéenam yëpp mooy lu yëkkati Sénégal waaye nag Sénégal léegi dafa tunu xam na ñiy liggéey mhm. ak ñi liggéeyu mhm. duwaan daal ay jàmbaar la euh, la ah, jox ma euh, téléspectateurs yi ndax ma mën a maye xaas bi nee naa xaas bi mi ngi lakk sama loxo yi <laughs> kon jox leen ma kon téléspectateurs yi ñoo mën a maye xaalisu bés bi baax a baax ak ki nga xamante ni euh, moom mooy oustaz euh, Pape Hann ci question diine yi oustaz Pape Hann euh, balaa ñuy dem ci alfi alfi ah, ah, balaa ñuy ñëw ci yow elhaj xam ah, sànq nee naa la ajaratu yéena ba Seydou Ba dew ma màkk may sama papa ak sama yaay dem nañu kon ajaratu laa <laughs> sa papa ak sa yaay sama papa nee na ajal na man daal bëgg naa ren daal oustaz Pape dama koy wax képp kilifa diine ku yor kurusam na ma ñaanal ren ma aji. da bëgg a aji waaw am naa yéene bi daal ah. am na am naa yéene bi daal. léegi a may sàllalu. Ah. luy sàllalu. Ah, alaaji da ngeen dul bàyyi Pape Anne. waaw mais xam nga Marwa dafa metti <laughs> torop ñetti fanu munaa dafa mm-hmm. metti taxaw mm-hmm. tawaaf mm-hmm. juróom-ñaari yoon <laughs> daw Safa ak Marwa 500 mètres aller 500 mètres de tour muy 1 nga def ko 7 fois ma ñëw ngeen nan ma paam. <laughs> El Hadj Pape ñaanal ah, ah, ah, ma laa ma la bayka la chérika bu fekkoon sax benn yoon sax laa def laa dem màkk ma xam ne alaaji yi miinu leen ko waaye dem naa jéem a ci ñu baale ñëpp nag du keneen non non non du loolu c'est que xam nga la la Pape An peut-être xam nga keroog dama la dama ne la borom oo rafet bi <laughs> mati mati xas ma war a am wax na dugal ma ci bureau bi ne ma kaay ma ñëw mënu ma yow lu tax ngay wax Pape An borom oo rafet bi jëkkër la ma ne ko sama jëkkër la di papa sama xarit lay sëyal donc su ma neexee ma ne ko sa obi rafet na mais nee naa woon naa bi rek waaw élage papa élage Kouthia it ngeen koy alxaaji alxaaji Kouthia waaw parce que aji na yaa dem na yaa waaw kon kon kon mais maa ma ne ma ne bëgg naa dem man moom man man fas naa yéene te bëgg naa ñëpp ñaanal bëgg naa dem bu soobee soobee yàlla topp ko ci tànk papa ak yaay. waaw bu ngeen demee rek xam ni benn VIP doo nga am. dëgg bu ngeen àggee xam ni ki tëdd fii la yàlla teral. dëgg bu ngeen demee xam ni kilifa yi ne ci suñu réew mi nga xam ne ñun ñoom la ñu yaakaar. Mm. ki tëdd fii la ñu yaakaar. waaw macha allah kon Oustaz Pape Hann alaaji alaaji eh, Pape Hann ñun ñu jël kenn ci ci ligne bi parce que nee naa ko xaalis bi moom ma ngay lakk ñu jël kenn ci ligne bi ngaa la allo soxna si. El Hadj. Oh, sama sama benn sama jaam bi na nga def. sa lan. jaam eh, ma jaam nga. naka la nekkee sa jaam. séeréer kenn du la xaalis mos ba pare rafet. ah. damay wax li kii yaa wax de. <laughs> noo tudd. Mame Diarra Diouf. oui Ndioufa Ndiokhobaye. ah sama xarit nga parce que dama am xarit moo fonk lool bu nekk États-Unis bu tudd Mame Diarra. ah oui waaw waaw. foo ñu woowee Mame Diarra. maa ngi wootee sama dëkku maam. ah yow yow yaa ngi ñëw man Colobane lañ ma ngéntee. Colobane Tëngéej maa ngi leen di nuyu ñëpp ci wetu Sococim. ah c'est bien. waaw waaw kon yow sama mbokk mi. alors Mame Diarra. da nga bëgg laaj Oustaz Pape Anne wala da nga bëgg ma mayee ci dépense bi. Hmm. ah man de yaa ngi nuyu Oustaz Pape Anne bu baax. waa léegi. may ko dépense balaa coupé. yow xam nga sama xarit nga balaa ngay coupé. Ah. may naa la 30 000. ah merci beaucoup ah, waaw waaw <laughs> may naa la naa la yow ci mën nga bokk yow maam Diarra. tur bi rek jar na ko. wallaay wallaay léegi xoolal maam Diarra. bul coupé ñu jël sa numéro. def leen ni moom bu leen bëggee amaat beneen 30 000 euh, euh, ngir ngeen mën a euh, jariñoo kon xaalis bi tey ji ci bés bi yokk ko ci dépense bi ndaxte weer wi sori na lool lool lool lool allah <laughs> kon nag ñëw leen ngeen woote ci yeewu leen si 88 628 22 22 Oustaz balaa ñuy dem ci Alfi dañuy rek daal di wax ci mercredi boobu ñu ne doo ca doo ca doo ca sangu doo ca tukki Euh, parce que temps yi am na benn vidéo bu ñuy jàllalee ci euh, ci whatsapp yi di ko di ko partagé ñu ne euh, nañ ko wax ñëpp ne que mercredi boobu baaxul mercredi bi sànq Taïfin mi ngi ko doon mi ngi ko doon wax nee na àllarbay nee na àllarbay carré la tudd mm-hmm. waaw mais xam nga xam nga bis moom bis du gaaf bis amul benn bis boo xam ne am na gaaf mm-hmm. Mm-hmm. loolu loolu loolu aada la mais olof la loolu te àllarba kare googu. Mhm. àggul Màkka. Ah. àggul Médine àggul France àggul Amérique ñun Sénégal rek ñoo fi wax ni àllarba. bis bi ngay sangook bis bi ngay tukki eh. bis bi nga dul tukki bis bi gis nga. waaw nit saa yoo waxee ah, jëlal sa bopp nga bàyyeek borom bi subhanahu wa taala yàlla nee na wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbu ku wakkirlu ci man yàlla man yàlla maa lay téyel sama bopp nit dafay wakkirlu ci yàlla booy génn sa buntu kër nga wakkirlu ci yàlla maa ngay tukki bismillahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwata illa billah amul kenn ku am kàttan ku dul borom bi subhanahu wa yàlla mi nga xam ne moo am yoon moom yoon yor yoon demal te an nazafatu min al iman set bokk ci ngëm yàlla mhm. am na ñoo xam ne bu ñu sanguwul seen yaram dafay xeeñ mhm. seen poqtaan dafay xeeñ boo amee borom kër baa nga am soxna wala tëdd moom say bisu àllarba sanguwu leen <laughs> ndax ñu leen <laughs> ndax di ngeen tegante yéen mais man li ma jaaxal mooy bisu àllarba kenn ci sangu mais est-ce que nit xam ne bis bi muy judd ak bis bi muy dee. man waa kay te te te set te set am na yàlla yàlla wàcceel la ndox ne la sangu ci léegi nag talaata boo jotee sa soxna talaata sa soxna am léegi ngeen ngeen jotee talaata mhm. war a xëy àllarba sangu mhm. ñu ni la àllarba ji kat dañu ne dañu ne bëgg sangu xanaa ko da ngay muñ rek téye sa bopp ah waroo julli fajar ah, waaw dëgg la de jéena ndax waroo julli fajar fajar ndax waroo julli tisbaar tàkkusaan timis ak gee mm. léegi nga joteeg sa soxna ah talaata ci guddi ah? mm. léegi nag nga ngeen yeewu ne eh tey la àllarbay kari sangu <laughs> loolu boo ko defee sa xel ñàkk sangu nga yëg nga ñàkk yëg yàlla dañ na ci yow mm-hmm. kon daal loolu ay bidaa la ay bidaa la mm-hmm. kon loolu ay al tey tey heure bis bi la ñuy sangook mm-hmm. heure bi kenn du ko sangook bis bi la ñuy tugg gis nga bis du gaaf bis du gaaf am na ci yoo xam ne ay xuraafaat la am na yoo xam ne ay xuraafaat la amul benn bis boo xam ne gaaf la euh, àllarbay carré tey la ñuy sangook bis bii la ñuy mais lan moo indi sax turu àllarbay àllarbay carré nag nañ ko lijjanti mais mais li mu bëgg xam daal mooy ah kon carré carré kon si baatu wolof la baat xam naa baatu wolof dañu ah, ba ah, nañu bàyyi docteur Massamba Gueye moom wax lanay carré euh, mais daal man li ma yëg te xam ko mhm. te te te te natt ni moo am ta mhm. waaw mooy bis du gaaf mhm. mag ñi ne daan nañ tànn ni bés bii mën nga ci ñaan sa soxla bés bii mën nga ci génne sarax comme ñu ni sarax mm-hmm. mën nga ko def bésu alxemes wala bésu aljuma nga ni mën nga ci saraxe ñu ni tey kat mooy guddik altine ak guddik aljuma mm-hmm. nekk ñaari bés yoo xam ni wax nañu ne ci la Sidina Muhammad récupéré dossier jaam yi mm-hmm. muy bés boo xam ne bésu delloo yàlla gën a gën bàyyi xel yàlla la comme la sa maam Seydil Hadji Malick wax ni tuubaa du amaluna yowmal xamiisi lahu wa yowmal lisnayni fi stirfaari dil jurami mu ni tuubaa du def na biral amaluna suñuy jëf yowmal xamiisi bésu alxames ba yowmal lisnayni ak bésu altine fi stirfaari dil jurami ci jéggulul borom tooñ ñi moom la rasulaay di def mhm. euh, ñu ne bés du gaaf am na bés boo xam ni ñu ne dimanche mën nga cee sanc mhm. ah euh, altine gasi garab noonu la ko noonu la ko mag ñi daan léebee euh, ba àllarba ñuy wax ba am mag ñi ne àllarba mën nga ci tukki mhm. am ñu ne àllarba kenn du ci tukki mhm. ñu ne àllarba mën ngaa tukki kon mën nga jàpp lundi mardi altine talaata àllarba alxames aljuma gaaw dibéer saa yoo namee tukki deman nga tukki saa yoo namee sangu sangu boo bëggee sangu na nga sangu mhm. mais jëlal sa bopp ngay ñaan yàlla tey saraxe tey ñaan mm-hmm. te adduwaaw silaaxul muminina aja jey na ba mooy ñaan mooy ngànnaayal jullit mm-hmm. nit day jël boppam jox yàlla ba mu jeex mm-hmm. kon nag Ami Collé euh, taawu njaboot gi euh, dégg nga yaakaar naa li oustaz Pape Hann euh, wax kon ci li nga xamante ni moom mooy àllarbay kare bi nga ma doon laaj démb nga tiit ci lool ne woon àllarba googu doo ca sangu kon yaakaar naa ne léegi leer na ci ci xel te de façon sax incha allah Taïfine Mariane Marianne Diop. dana ci rek euh, daal di euh, yegsiwaat bu soobee yàlla ci yeneen di jotaay kon euh, yeewu leen lay doon donc léegi Mawo dañuy rek daal di ànd ak Alfie parce que xam ngeen ne tey Alfie dafa ànd ak ñun ci li nga xamante ni lu neex la baax ci biir di riz au lait ñu gën koo xamee ci turu som bi waaye nag jël leen ba léegi ngeen armé seen téléphone ngeen woote ci 88 628 22 22 88 am naa nag francs yu ma bëgg rek maye gannaaw ba maam jaara sama xarit bi euh, jëlee kon 30 euh, mille yooyu euh, beneen 30 mille yi kon woote leen mooy may leen xaalis bi yéen a ko moom te yéen a ko fii kon tax a toog Alfie kon fa woon rek nañ dem Sofia Sofia rek ñëwaat mhm. produits laitiers naturellement riches en vitamines. Allez Alfie, riz au lait, son beach. Ah, euh, Dieynaba, riz au lait. Pas comme les autres, hein? waaw sombi wala riole comme euh, nu ñu ko mën a wootee rek maanaam mën a mën na nekk nee naa la bii du sombi ndax boo daan euh, sombi je me rappelle bien ba ñu naan nekk xale cin ma nga daan teg def ci ndox daal ciy def ceeb bi euh, donc soo paree nag jël sa ay sow pël daal ciy def nag suukar ko mu neex lool donc xam nga yooyu yooyu goût dafay dafay des suñu ay mémoire mais tamit jamono day dox nga xam ni recettes yi dafay changer ba pare dafay varier sombi mën nga ko toggee ak meew moo tax ñu taamu ci meewu Sofia bi nga xamante ni ci suba bi ñu togg sunu som bi dañ ko def ci casserole bi daal ciy def ndox donc soo ci defee ndox nag xam ne lait en poudre la ñu andi nga daal di diluer sa le sa meew soxlawul sax ndox bi di tàng parce que meew bi dafay seey ñu daal di jël nag li xamante ne mooy sunu ceeb ginnaaw bi ko sebetee ba mu set daal di koy def ci meew bi parce que euh, importance bi meew bi di am pour mu togg ceeb bi jey na ba mooy que sa ceeb du lewet comme boo booy lekk som bi dangay gis ni booy booy lekk ceeb bi dafay lewet mhm. bi soo ko toggee ak meew Sofia euh, soo koy lekk da ngay gis ni euh, sombi bi maanaam dafay saf meew day am goût waaw day am goût wax naa ko sànq jël nañu li nga xamante ni mooy cannelle daal di ko ciy def moom mooy tipp tipp yu ñuul yi nga xam ne yaa ngi koy gis ci biir ceeb bi jàppal ni euh, may ba mhm. ceeb mooy première céréale bi nga xamante ni moom la ñu gën a consommé ci monde bi mhm. donc mu nekk ay euh, céréales yoo xamante ne daf ñuy andil ay protéines animales ndax boo ne protéine am na xam ne bu végétal am na euh, wala bu bu végétal am na ak animal ceeb nag bokk na ci protéine végétale yi nga xamante ni moom la ñu moom la ñuy procurer donc boo koy lekk da nga gis ni da am cawarte parce que boo lekkee ceeb day bu bu paree nag moment de digestion boobu ci lay dugg ci say ci say cellule ak dugg fu mu war a jaar nga xamante ni daf lay fournir énergie andi la li nga xamante ni mooy ay ay glucides euh, permanent ci sa yaram moo tax ñu koy tere ñi nga xamante ni dañu am diabète parce que ceeb dafa am suukar glucide boobu nga xamante ni daf la koy fournir euh, moo tax ñu koy léeg di ko limiteel ñi nga xamante ni dañu am jabet mais boo jabetul ceeb dañ ko recommander pour di ko lekk parce que source de glucides la yoo xamante ni ay protéines végétales la ñuy andil et c'est bon pour notre santé donc ñun fii suñu réew am nañu loo xamante ni euh, monde bi yëpp dañ koy dañ koy dañ koy wër muy li nga xamante ni mooy ceeb ñun nag taamu nañ ci ay ceebu jën taamu ci li nga xamante ni mooy ñànkatang wala ay payla donc bu recette sucrée bi mooy nekk euh, riolé nga xam ni da ngay jël ceeb daal di ko koy toggee donc yeneen li nga xamante ni mooy agrémenté euh, riole bi maanaam mooy andi saf-safal bi mhm. bokk na ci suukar donc suukar bi tam jay na ba dama ko toggaale parce que loolu tam ah, waaw loolu tamit beneen euh, secret lay nekk beneen astuce lay nekk boo xamante ni daf lay permettre booy lekk maanaam sa riole nga mën a sentir goût bi goût bi mhm. dafay imprégné kaw ceeb bi day dugg maanaam day dugg ci biir ceeb bi dafay dugg ci biir ceeb bi dafay dugg bu baax ci biir ceeb bi mais suukar bi taamu nañu ñu def ko si euh, bu boo demee ba xam ne sa ceeb ñor na mhm. nga saat nga daal si def li nga xamante ni mooy sa suukar euh, donc pour mu mën a ñor Euh, maanaam pour mu mën a détaché wu beurre sofia bi du ci du ci manqué benn yoon dañuy jël loo xamante ni benn kuddu lay nekk jay na ba pour mën a mu mën a grain yi mën a détaché wu donc moom tam daf ciy baax maanaam pour mu mën a tas daal pour mu mën a tas andi ci benn goût boo xamante ni mhm. lu am solo lay doon parce que xam nga beurre sofia moom ak meew sofia Euh, ci recette bu ñu dugg rek doo jël ndaare benn yoon ba tax na ñoom xam nga partie bi di nga xamante ne mooy cuisine bi dañ ciy dem ba mu jeex les concentrés euh, non sucrés wala les concentrés sucrés su fekkee utiliser woo suukar moom tamit dafay neex ci li nga xamante ni mooy riz bi euh, jay na ba nga xam ni dafay diluer dang-dang bi maanaam dafay dafay génnee dangaay bi mhm. suñ ko amul mën nañu jël li nga xamante ni mooy crème fraîche donc loo si mën a def rek ci li nga xamante ne mooy riz Euh, pour goût bi mën a ñëw dafay neex parce que mhm. ñun fii dañ ko banaliser xëy na parce que li ñuy yaroo ci sombi moo tax mhm. mais dafa nekk ay desserts yoo xam ne def na tour du monde généralement dañuy def tour du monde c'est mhm. yoo xamante euh, grand chef cuisinier yi dañ koy utiliser di ko servir ci ay restaurants gastronomiques yoo xamante ne c'est même industrialisé c'est industrialisé da ngay dugg ci grande ci grande surface yi ci commerce yi di fa fekk c'est li nga xamante ni mooy ah, riolé nga ñëw Sénégal ñu ne la sombi nga ne duma lekk sombi di jaay euh, patron soo demee Europe fekk ko ci grande surface yi ñu bind la riyoole nga jël dóor ba gàtt te yàlla xam na ni sommi nga lekk mais boo ñëwee sa kër sa jabar tegal la sommi nga ne ñamu baadoola la mais il faut savoir que nu mu gën a allégé ak nu sa poche mën a toll sa sombi mën na mel noonu mais sombi daal jàppal ni ceeb la te su fekkente ni matière grasse yi ñu ciy def ak euh, liñ koy agrémenté yow yaay tànn mën nga ci def sa ay fruits sa ay raisins mën nga dagg sa ay pruneaux waaw def ko ci nga dugal ko ci mën nga dagg wax nga ci suba sa ay pruneaux mhm. mu nekk maanaam bi am lu mel ni gerte loo yooyu ci biir waaw boobu du sombi gerte xam nga yooyu tamit sombi gerte non non non du nekk gerte non non mais ah. fruits yi ñuy wax bu ñuy def ci biir noix noix xam nga ah. xam nga xam nga oustaz <laughs> boo gisee foo gis foo gis ci wàllum restauration loo xamante ni dafay nooy mhm. maanaam euh, texture bi day nooy mhm. da ngay daal di jël leneen loo xamante ni dafay andi croustillant def ko si mhm. donc mën nga jël sa ay amande jël sa ay noisette daal di koy tojat torréfier ko ba mu croustillant nga def ko ci sombi bi mm. donc loolu daf lay permettre booy lekk ngay sentir gerte yooyu ngay wax loolu yëpp ay astuce la yoo xamante ne loolu day neex soo koy lekk dafa neex parce que effet effet effet mooy la ak effet croustillant ça se marie très bien ak li nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy euh, ci ci wàllu lu jëm ci wàllu lekk donc day dañuy ñëw ci li nga xamante ne mooy tuuti essence vanille parce que daf ciy neex Dieynaba ah. donc du soxla muy muy bëri su ko defee nag xam nga moment bi soxlawul sax ñuy xaar euh, heure dégustation privée nga xamante ni taamu nañ ko fi def somme nag moom euh, neex na lekk parce que lu civilisé lay nekk boo jëlee sa ay coupelle ma yàqal leen ko léegi émission bi di jeex ñuy jël ndànk-ndànk di lekk Dieynaba xam nga loolu yaa reen damay régime moom danaa lekk mais ñàkk nekk yu mu fi ñàkk nekk moo tax sa bool fees ba tey ba tey moo tax mu kees ndax Didi Didi Damour. Ah, waaye bàyyi waaye bàyyi Didi ma koy wax Didi Damour ma koy fàttali léeg-léeg tey sax naru ma woon ñëw ndax Didi. fii lay toog jey na ba mhm. ma ñam alfi sombi bi ñor na alfi kañ ngay yàq suukaral ma ñamal a suukar ma yëngalal la man bu ña bu yàggee sax ma def ko assistante ma jàpp mais man daal wuyu ma uh-huh. xam nga man yii moom dama ko farloo trop parce que lii laay ndékkee ay fonde ak ay sombi xam naa ne moom boo ma ko joxoon nii si tàng tàng bi rek xam nga doo ko lekkee doo ko lekkee kii kudd da ñëw rek waaw furux bi rek a ciy daax <laughs> moo si moo si gën a neex gën a neex mais daal jàppal ni jëy na ba céréale waaw may may ci Pape Cheikh ñu yekkal ko bàyyi ñu neexal ko léegi ñu yekkal ko Pape Cheikh ak maa la sama mag ji waaw sunu mag ji namm nañ la de namm nañ la xam nañ ni li nga dese bëreetul ah? moo kii jógee Atlanta ba dem Bataclan bu xëyee bu teg caféem hmm? mm-hmm. def pot caféem di enjoy di ñu doser naan ñu ay bonne journée ah ñu ngi ci somb bi de euh, Pape mais nag mm-hmm. rek ana Pape Cheikh lay wax waaw oustaz leen ñu Pape Cheikh mm-hmm. nu ngi koy ñaanal Euh, groupe yëpp namoon nañu ko. namoon nañu ko mais nag ñi ñu wax yëpp nuyu Pape Cheikh Pape mi ñaa ngi lay nuyu. Pape mais li ma jaaxal mooy daa départ volontaire nee na dafa def départ volontaire.

neexee li natik dafa xew. oui ma Pape daal maa affaire bi yow la. waaw oui man. <laughs> yow Alfi yow nga jënd poso guddi. déedéet sama ko daan tere ah sama yaa def ma tere da doon wax baaxul. léegi nag li tax ñu la doon tere Sénégal njaay bi ñëpp ku ñu ne dama jëndi poso guddi wala këriñ guddi nga ne yow dañ la koy tere borom bitigi duñ ko jaay lépp dina leer ak tayfin xam nga rubrique gëm-gëm dafa am solo torop torop torop torop ajjuma ji parce que dana tax li nga xamante xawoon na lëndëm ci xel yi mu daal di leer nañ te loolu nag Taïfin lañ ci àndal fees loolu place am macha allah li muy def nag mun koo lool lool lool lool Taïfin maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Dieynaba alors nga déposé kenn du ko jënd guddi <laughs> waaw Dieynaba mhm. xam nga Sénégal euh, fii dañuy faral di am suñu ay aada ak cosaan yoo xamante ne dañu yaakaar ni si ñun rek la yam mhm. mais ndekete suñu aada cosaan yooyu dañuy dem ba mhm. su nit jugee dëkkam ñëw fii sénégalais bi da koy wax ñu si bëri dañuy faral di jóge Guinée wala Mauritanie. mais ñoom bu ñu xasee ñëw Sénégal euh, dégg fii ñu naan li nga xamante ne moo di puso kenn du ko jaay guddi këriñ kenn du ko jaay guddi xorom kenn du ko jaay guddi day dem ba ñoom boutiquier yi dañuy daal di topp commencé di topp uh-huh. loolu nga xamante ne moom lañ fekk Sénégal uh-huh. lan moo tax exactement ñu si bëri mënuñu la wax lii la alfi yaa ngi koy dégg sànk mu naan la sama yaay ma ko tere rek moom tamit jéemu la xam lan la <laughs> uh-huh. kon mun nag def nañu benn doxantu dem jot si waxtaan ak ay borom xam-xam ñu dem régi seetaan élément bi dellu si waat ci plateau bi ceena bu dee mën a ma ñëw ci dëkk boo xam ne dañ naan kenn du fi jaay puso guddi kenn du fi jaay këriñ guddi kenn du fi jaay xorom guddi man duma ko fa jaay ndax la tax ñoom jaayuñu ko ñoo ko xam ñi nga xam ni nag seen xam-xam màcc na ci wàllu seytaane di faj seytaane ak yu demee noonu ñooñu boo leen ko laajee danañ la wax li nga xam ni mooy firnde ci baatin waaye li nga xam ni daal mooy euh, euh, euh, li ma waxoon ci njëlbeen lépp loo xam ni li daal maanaam day sonle wala day dafay dafa rafetul ci gis-gis xam nga bàyyi ba guddi ngay ngay dem di di di wut ay puso naan naan da koy jaay yow mi koy jaay mën na réer ci yow kii yow mi koy jënd mën na réer ci yow wala bala ngay àgg sax dootoo gisati puso bi kon li ci am solo mooy yooyu yëpp du doon loo xam ni lu war a am la ci tàng tàng bi ci taxawaay bi kon jarul ñu ñu koy xëccoo naan tey ma jënd ko ci guddi gi wala bu ma ko amul nangam ak nangam yooyu yëpp rafetal la rek waaye li ci am solo mooy buñ la nee lii dañ koy aaye bàyyi loolu. muy xorom muy këriñ yooyu kenn dawu ko jënd guddi léegi rek laa gis sénégalais yi di ko jënd guddi waaw parce que loolu li tax ñu aaye ko ñi ko aaye dañoo am xam-xam seet ba xam ni baaxul ci nit. di jënd xorom guddi di jënd euh, këriñ guddi moo tax ñu tere woon ko man ñemewuma ko mais xale yi léegi da leen di gis ay dix heures ci guddi ñu dem ci boutique di jënd këriñ wala ñuy jënd xorom mais ñi xam dara sax boo leen laajee jaay ma xorom guddi duñu la ko jaay parce que dañ ko bañoon te biñ koy bañ di ko moytu dara dalu leen ah mais vraiment nañu nañu nañu seet yi nga xamante ni ma mag ñi dañ ko fi daan bàyyi ñun gone yi suñu bëggee mucc nañ ko fi ba xorom saabu këriñ ak ndox jinne da ci laxasu ak borom bët li naa bët bu gudd ñoom dañuy bëgg saabu gis nga am na picc mu ñuy wax bàqaar ngeen di wax corbeau le corbeau kooku lu mu lekk lu dul saabu loo yoroon fi mën nga yor yàpp yor lu ne mën nga yor saabu mun na ko këfit kon ñu ne guddi doo jëndi saabu doo jëndi xorom walla boo koy jël doo wax turam da naan ko jaay ma setu te seetu sax mooy saabu ci olof saabu arabe la du français de li naan savon arabe la bu ñu bu français yi jël waaye savon saabuun la tudd xorom danga koy tuddee saf cin boo ko waxee saf cin rek maanaam lam la doon wàññi ci li ci mag ñi gis nangu ñoo wax nag lu ci ne waaye dañ ko daan tere tere googu nag nii nga xam ne lii mën nañ ca teg baaraam ne lii la lu dul liñ ci wax ne borom bët bu gudd la ci laxasu ak rab. puso moom dañoo xam ne bu réeréer doo ko mën a gis. waaye boo rotee ci su bëccëg mën nga ko jël waaye dara nekku ci mag ñi loolu lañ ci jël woon. dañ ne euh, joxe xorom loolu xañ na a ngi ci waaye ñu ne euh, boo ma laajee saftin dama lay wax nga dem jëlal sa bopp ñuy wax naan ko am doom ju du du du du maye saf ci nu guddi parce que mën na koo lor te ku ne bëgg nga sa doom jugóor donc loolu kon bu ñu ko waxee day nekk loo xamante ni euh, ñu bëri duñ ci tab bi duñu ko def këyiñ moom xam nga ci jamono joo xamante ni bi euh, jamonoy sedd la wala jamonoy nangam la mag war caa jaaru nga dem di ko ko laaj bu nee déedéet nga xam jikkoom te fekk na déedéet loola da caa yaakaara euh, faje mbir moo xamante ni da koy sonal donc loolu bokk na ci lu tax ñu bëri di ko bañ a jëfandikoo moom Euh, këriñ googu di ca ñaan wala di ko kii ñu ci bari duñ ko def waaye du dara mag ñi ñoo daan yare noonu. bu dee mana a. alors Mariane Silva boo déggee li la li la Maaw Cissé wax ci régie damay bàyyi ba ñu comme ça ma la ko hors antenne. waaw dama bëgg nga waxal ma ko ne ko. Mm-hmm. écurie bul faale. Mm-hmm. bokk naa ci mbër ñi ba njëkk am licence. <laughs> merci beaucoup yow yaa moom boobu écurie bul bokk naa ci mbër yi fa njëkk am licence. ñëw ki nga xamante ne rek la mën. bul bul xamul Marianne rek dégg nga ko. waaw jéena ba pour ñëwaat un peu si mm-hmm. sujet bi. Euh, dañu dañu am euh, ñeenti interlocuteurs yoo xam ne ñoom lañ jot a jël. léegi soo leen dégloo bu baax euh, ki nga xamante ne moo di colonel Massamba Gueye mhm. ak ki nga xamante ne mooy colonel Momar Gueye colonel Momar Gueye mhm. safula dama nam tonton <laughs> Massamba moo tax waaw donc colonel Momar Gueye ñu koy jaajëfal ndax boobu ba tey mu ngi jàpp si liggéey bi donc colonel Momar Gueye ak ki nga xamante ne moo di euh, Modou Faye Mbaye ñoom ñaar li ñu déggoo ci kàddu mooy euh, li nga xamante ne moo di Pousso Euh, ak yi nga xamante ne euh, mooy ay saabook yu ni mel boo gisee ñu ko daan tere mag ñi dañ la daan jàngal parce que bu njëkkaan gox yu bëri ay lamp ak yooyu am foon mm-hmm. ñu ne la amaana boo génnee di jënd mm-hmm. ay pusoog yooyu yàkkamti xale di daw ak yooyu euh, puso bi mën naa réer ci diggante bi balaa ngaa agsi kon mag ñi dañ ko doon def pour jàngale mais ñeneen ñi nga xamante ne ñoo jot a wax mu di ku mel ni taal ngol-ngol ak Serigne fàllu Cissé ñu leen di jaajëfal ñoom itam mm-hmm. ñoom li ñu wax mooy dafay faral li ñu naan borom bët bu aay daf ciy faral di laxasu moo tax boroom bët bu aay day faral di laxasu euh, maanaam ay ñu ñuy tooñ ak ñu ni mel seen ay wax la usaas lu ñu wax xam nga xam nga ñun bu ñuy bu ñuy bëggee mooy nit ñi ñuy tooñ ay dëmm lañu fekk mm-hmm. Mm-hmm. mais est-ce que dëmm am na mm-hmm. ndax mës ngaa gis dëgg la ku dëkkee étage. ñu ni ay dëmm la. déedéet xaalis. ñu ñuy wax ay dëmm la ñu ñëpp. mooy ñuy seet ci sàkket la ñu dëkk ak kër gu bon. billaahi te koo ni dëmm nga. di ko tuumaal ba koñ ba di ko daw. yow mi ku ko teg. bu ëllëgee yàlla dina la. wallaahi tooñ baaxul. boo seetloo sax euh, bëri na ay yeneen baat yoo xamante ne moom lañ jot a génne mhm. parce que nee nañ su timis xasee jot. su fekkee da nga bëgg jënd xorom mënul mhm. ñàkk ba mënul ñàkk nga bëgg ko jënd boo demee ci boutique yi duñ la ko ñaan mais da dugg sa benn kër dëkkandoo boo xamante ne yéen ñaar sekk ngeen ñaan mm-hmm. léegi ñu ne soo ñëwee yow doo ko doo ko ne may ma xorom mm-hmm. soit da ngay jubal si waañ bi nga tibbal sa bopp wala nga ne ko may ma saf cin ñu ne mm-hmm. soo waxee saf cin day tax li nga xamante ne mooy lore du la lor mais am na ñoo xamante ne sax duñ la ko may li tax mooy boo déggee Modou Faye Mbaye li mu lay wax nee na ku am doom bu góor du maye xorom guddi ah ndax loolu day lor doom ju góor ji léegi euh, leneen li nga xamante ne ñoo ngi koy wax tamit ñu ne saabu itam soo koy jënd guddi doo wax saabu dangay wax jaay ma setu jaay ma setu uh-huh. ngay wax mu ne euh, muy wax de uh-huh. Serigne Fallou Cissé muy joxe exemple naan euh, corbeau picc bi ñuy wax corbeau uh-huh. lekk sax farataalu ko li nga xamante ne moom la gën a bëgg mooy saabu nee na boo yoree saabu sax ci mbedd bi di dox amaana soo xefee moom mu këf li nga xamante ne moo di saabu bi pour pour indiwaat rek un peu aspect bi muy wax mhm. ñu ne ñi nga xamante ne ñoo di faj ñooy faj ay ñu ñu rab jàpp ak ñu jinne jàpp soo demee ci ñoom euh, dañuy xam li nga xamante ne exactement moom la mag ñi daan tere ci li nga xamante ne moo di wàllum xorom ak wàllum këriñ ak yu ni mel. këriñ këriñ boo xoolee sax léegi boutique yu bëri <laughs> dañ koy jaay guddi. parce que léegi dañ koy waaw léegi yamatul si jàll yi léegi kese waaw voilà a ñëw suba. Mhm. gi ngay dem ci boutique bi saabu ak yooyu. moo tax saabu moom uh-huh. dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy jaay si guddi gi mhm. mais am na tamit yeneen boutique yoo xam ne jaay na ba parce que ñun tamit suñuy suñuy def reportage yu ni mel dañuy bëgg ñun tamit dem di tester. dem naa ci zone yu bëri yoo xamante ne guddi gi damay dem laajte mais li ma boutique yi ma jot a wër yëpp puso a wax a wax a ba ñu jaay la ko dina nga di nga négocier xorom bi mm-hmm. baa nga négocier saabu bi ak këriñ mais li nga xamante ne moo di puso moom testé naa boutique yëpp euh, gisuma ko léegi euh, mm-hmm. mati baal ma euh, li nga xamante ne moo di poobar tamit mm-hmm. dafa bokkaale ci ci ci ci ah lim bi waaw ah. Ah, dugal nañ ci poobar waaw poobar bi dañ ko ciy dugal oustaz waaw poobar bi tamit duñ ko jaay guddi parce que comme li ñu wax rek wàllum rab ak yooyu parce que dañuy wax ni sax bu ñu lay tere bu ñu lay jox yenn kiiwu cat yi dañ siy boolewaale li nga xamante ne. léegi xanaa kaani tamit kenn du ko jaay guddi. ak am xam ne du ñu jaay ko du ñu jaay la tegu. waaw xam nga loolu euh, maanaam gis nga aada. aada daf fi jiitu diine. te euh, gis nga gis nga lislaam mm-hmm. lislaam bi ci fulla la mësi dox mm-hmm. am na ci loo xam ne man awma droit gëm ko xëy na mag ñi wala sunu mag ñi nga xam ne dañ fi jiitu woon mm-hmm. dañ daan natte xam nga puso mën nga koo yónni sa doom mu jam ko. Mm-hmm. mbaa bu ki ko ko jox mu lokk ko ci bët. Mm-hmm. mbaa mu wadd xam nga sa dafa ndaw. Mm-hmm. këriñ bi ñuy tere par guddi mais mën nga tukki dem xew. guddee ñëw war a jënd këriñ pour nemmali pour pour pour war a nga war a togg wala nga war a cuuraay sa biir néeg nga ne ah guddi jot na de nee xale yi bàyyi leen ba suba ma door a taal mënatumaa jëndi këriñ xam nga yooyu tamit euh, am na loo xam ne xel boo boo booy jëfandikoo sa xel. da nga naan waaye waaye mag ñi da ca aada yoo xam ne wala lii boo ko defee rab daf lay dugg. lii boo ko defee lii daf lay dal lii boo ko defee lii daf lay dal da ca loo xam ne aada la. mooy li ñuy wax ceci explique cela. voilà lii nii mooy explique li tax lii di am am na ñoom ñoo xam lan moo tax. ñu koy def mais aada aada bi mu ñëwee lislaam dafa xool li yenn maanaa. Mhm. loo xam ne li yenn na maanaa l'islam bàyyi ko. Mhm. mais l'islam ñëw xool yi nga xam ne wul maanaa xel nanguwu ko. Mhm. ndax yàlla day dem ba mu yàgg na afalaay tafakkaruun xanaa du ngeen xalaat. Ah, afala yaaqiluun xanaa xelluwu leen. yàlla day dem day wax borom xel lay waxal. bu ko defee l'islam la ca rafet ak la ca baax ak la ca mën a jëriñ nit mm-hmm. lislaam da koy bàyyi mm-hmm. waaye loo xam ne ay xuraafaat la ay euh, euh, Euh, euh, mbóoruntu laak yooyu l'islam day ñëw dàq yooyu waaw l'islam day ñëw moytu yooyu waaye waaye Marianne mi ngi def reportage yu am solo ndax dafay dañ koy dund li ñuy dund ci suñu biir réew bi mag ñi daan ko dundee mhm. euh, bàyyi ko fi ndaw ñi am na ci yoo xam ne suñu toll mhm. ah mhm. xamuñu ko rawatina génération bi ñu jànkoonteel mais ñii mu ñii ñii nga xam ne jël na leen di ay nit yu aada di ay ah. boromi xam-xam ñi nga xam ne ñoom ci aada la dund comprendre lan mooy aada. Euh, nii mu leen jëlee tamit ñoom it ñuy expliquer. Mhm. ñi nga xam ne xamuñu rawatina ndaw ñi. ñoom it ñu comprendre. boo boo seetloo sax ki ki mujjee wax euh, mu ngi expliquer naan boo gisee këriñu ñu guddi ñu ko daan ñaan mooy dañ mag ñi li tax ñu ñu jublu woon ci lool mooy jàngale ak yar. Uh-huh. Euh, li nga xam ne moo ci gën a fës lu ñu mënoon jàpp mooy dañuy bañ nga xam jikko mag ma ca koñ ba. wala mag nga dëkkal hmm. dem di ko ñaan mu tere la. nga ne ah paa bi nekk sama koñ aka nay wala aka bon mm-hmm. nga xam jikko mag moomu mm-hmm. moo tax ñu naan la bul jukkat di ko ñaani ji këriñ guddi wala yooyu mm-hmm. moo tax ndax këriñ gi bu mag dafay faral di ragal sedd moom guddi da koy jaar ñu ne la kon bu ko ñaan ndax soo ko ñaanee mu bañ mm-hmm. nga xam jikkoom mm-hmm. moo tax ñu ne la doo ko jaay guddi daal kon bëri na waana daal yu mag ñi di di faral di tere comme nu ko oustaz Pape Hann waxee voilà dañ la koy léeboo maanaam dañ lay tere dara pour yaraare la dañ lay tere dara pour nga bañ a loru li tax ñu daan wax bu njëkk bul jaale guddi mm-hmm. ah, bu nit bu départ ci am dëkk jël sareet départ añ ba pare départ booy wàññeekuwaat ndax mën nga am lu yóbbu sa dëkk lëndamaay boobu coow loolu ak problème boobu loolu dara mën na la maanaam lu ñu la tere rek mm-hmm. loolu sa njëriñ la mais ñu ngi lay tàggataale di la yaraale pour nga a comprendre euh, en tout cas li ma si mag yi wax rek mooy que ne nee nañu jigéen danga nga war a farlu mm-hmm. waroo xaar ba xaaju guddi di wuti saabu di mm-hmm. wuti puso wuñ maanaam lépp danga nga ko war a wa wut waxtu ba nga xamante ne bu ñëwee dara du la bett kon nag loolu lépp ci yaraale la waaw xel bu baax a baax ci euh, nag euh, ce soir ma def anniversaire yi ba pare après euh, bàyyi kon sama nawle yi daal di kon tàggatoo kon ñu commencé ci anniversaire yi donc tey 25 novembre joyeux anniversaire déjà à tous ces natifs donc de ce jour happy birthday par anticipation à notre Léo d'amour Léo kon nekk doomu Alfi dama bëgg nga wan ma photo bi musique, notre petit latino. C'est de la part de Papa Ricardo, de tes grands-parents, tes tantes, euh, euh, ta sœur, euh, de ta grande sœur tes cousines, euh, mais également ta maman qui t'aime très très fort. Et nous, Léo, on t'aime très très fort. Tu es très adorable. Tu es notre super à nous, Léo. te dire on t'aime ouais. très très très fort, Léo. Alors, happy birthday également à Ndei Koum Saho. Ndei à toi. toi de la part de ton papa euh, de ta maman sa yaay sa tant euh, Mané euh, sa maam booy ñu ngi lay ñaanal kon longue vie nga dund kon ba say may di baawaan doom bu jigéen nag day fonk baayam kon nag soo màggee fonkal sa baay bëgg itam say waajur happy birthday à bébé Awa Ba ki nag sama boss la xam nga Alfi sama rakk lañ ko tuddee waaye daf ma ne que ne que bëggatuma tudd Awa nee na moom léegi bébé naa la tudd donc voilà bébé Awa dama ko bëgg ba su may wax voilà sama sama xol dafay dafay tooy donc bébé Awa euh, maa ngi lay ñaanal tey sa deux ans yi nga am yàlla euh, may la euh, kon sutura <laughs> voilà donc euh, bébé Awa maa la bëgg euh, te bëggantuwuma la euh, dindal turandoo bi fële man léegi bébé Dieyna nga tudd ah, maa ko déclaré. <laughs> voilà wala ñu tudd Awa Dieyna Ba voilà donc bébé Awa <laughs> gros ah, bisou kon dinaa jaax ci kanam pour indi la sa cadeau sa yaay Penda ak Sélé ñëpp ñi nekk Denver ñoom Rasidou ñoom Seydou Mariam Sili ñoom ñëpp ñu ngi lay bisou si kanam incha allah dinaa ñëw sama xol dafa fees mhm. donc happy birthday itamit à ma sœur Pikine euh, keppaaru Serigne Fallou euh, donc euh, c'est de la part de ta sœur Ndeye Fallou Gueye mi dëkk kon ca États-Unis moo lay souhaiter joyeux anniversaire Ndeye Khoudia Gueye longue vie à toi enjoy your day happy birthday à Mariem Diagne di la ñaan longévité santé jàmm ju sax et plein de succès c'est de la part de tes amis yi nekk télé informatique family donc happy birthday à toi ma puce tu es tout simplement magnifique profite bien de ta journée dañuy tamit souhaiter Euh, joyeux anniversaire par anticipation à madame Dia Mati Koumba euh, Gueye euh, mi ngi nii soxna su baax su taaru si ñu ngi lay rek daal di souhaiter joyeux anniversaire de la part de madame Lo Adama Niang Abibatou kon joyeux anniversaire madame Dia Mati Koumba Gueye par anticipation happy birthday pour terminer à Ndiouga Afia Baye donc Ndiouga Afia men Ndiouga Afia men <laughs> suñu ah foofu dañ cee taxaw Ndiouga est-ce que sax du ñu may tuuti son sax après ñu tëjee ko bu Ndiogu Afia. voilà. imam Pape Samb euh, ah imam Pape Samb ah kon imam yi dañuy fêté anniversaire. ah, ah oui sama doom euh, sama doom moom Astou Ndiaye. Euh, tey la seen anniversaire waxal ma ne loolu. waaw ah, bàyyi ah, non wax ko yow. nga ne happy <laughs> mais attends moom la ñu tëjee donc mais on va souhaiter juste El Hadji Oustaz Pape Anne. Mm-hmm. happy birthday à Ndiogu Afia Baye Fall de la part de tous ses fans ñun agent Goudoul Futurs Médias yëpp ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire maa aussi c'est ak Ngala ñoom ne nañu bëgg nañ la te loolu du deñ ñëpp bëgg nañ la njóogu Afia nga ne joyeux anniversaire à imam oustaz Pape Samb waaw Oumou mhm. maam Assou Ndiaye maam suñu doom yu baax yooyu noonu la part kon euh, de oustaz Pape Anne kon tëj fii euh, El Hadj oustaz Pape Anne kon ñu tëjee fii kon euh, yeewu leenu ajuma ji yaakaaru naa ne amoon ngeen mbégte kon ànd ak ñun ñu tàmbalee kon tàggu yi ak tayfin Marianne baal ma <laughs> jéena ba amul muskila waaw di di tàggatoo di tàggoo amul solo jéena ba ñu ngi tàggoo rek di joxe <laughs> rendez-vous vendredi bii di ñëw incha allah ci ci ci beneen thème mhm. euh, waaye ñuy gërëm également ñi nga xamante ne ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi yëpp di gërëm également Cheikh Idriss euh, mais may gërëm également euh, Khady Kane borom waa kër Serigne Babacar si couture mhm. tey moom a génne ci taybaas bi jéena ba ah, ah, ah. numéro téléphone am mooy 77 615 77 92 77 615 77 92 Dieynaba ba beneen àjjuma ak jàmm incha allah. Bessel. Euh, merci beaucoup Dieynaba par anticipation rek di souhaiter sama turandoo yëpp parce que maak ñoom ñoo bokk mois. muy mois de novembre man sama bés passé na dimanche. Ah. donc kooku di Bessel bu ndaw depuis Somone happy birthday à toi chérie dégg nga <laughs> euh, di ñaanal ñëpp jàmm di jaajëfal aussi complexe alhamdulilah ñi nga xamante ne ñoo ma defaral njaxas bi ñoom maama kontaan naa ci ñoom ñëpp di leen wax rek baal leen mark ba vendredi bii di ñëw. incha allah soxna Mati. soxna Mati ah waaw ma yaatal. waaw ah, déedéet. il faut ma yaatal nag damaa màggali woon. oui ma euh, waaw day jox ma moitié bi damay njëkk a bégee. soxna uh-huh. Loota Mbàkke. Uh-huh. moom nag xam na man xam naa. dañuy <laughs> waaw dañ koy bégee ñun ñëpp parce que nit la koo xam ne macha allah nee naa ko bu sa baay ba dellu si waatoon sa toogaay doo ko defar. yaayu maam Bousso maa ngi lay bégee baax a baax di sët ci ki nga xam ne moo di Serigne Bara maa ngi koy sargal di kontaan ci moom soxna Fat Bintou Pouy maa ngi koy nuyu moom itam mu sëñ Abdou Karim euh, <laughs> soxna Abdou Karim waaw waaye sëñ Abdou Karim sama baay bu baax boobu ak ah. sëñ Abo mi nga xam ne nag soxnaam si bi mu ñu dalalee macha allah jàmban na bu baax a baax ki nga xam ne moo di Pape Cheikh muy soxna amikan Fall waaye nag damay bégee koo xam ne nag ñëpp dañ maa xamee ak moom muy soxna Wali Kebe mu koy bégee di kontaan ci moom baax a baax naan ko yaaram encore mhm. guddal fan soxna moom yi mu sëñ Abdou Borom dër bi ñoom itam dama leen di bégee ak kër gi nga xam ne nag falaa nekkoon muy ko ñoom bàcc Jaañ dama leen di bégee di kontaan ci baax a baax tuub bi nag sama sama sama jàmbaar jee ko ñaw xalifa mbergaan may nuyu bu baax a baax nga xam ne mooy soxnaam mhm. seet la mhm. ah faama naaru xalifa mbergaan maa ngi kontaan ci yow baax a baax jeeg bi jigéen di boo ñu benn yoon waaye nag cuub yi jàpp ni ko bëgg am mën nga jaar ci Ndeye Khady Camara depuis Kébémer mo numéro mu ngi ci 77 570 78 92 maa ngi sargal ñëpp di kontaan ci ñëpp rendez-vous incha allah guddi maman Dieynaba <laughs> maman Diène ba xam nga dafa bokk ci man à 100 pour cent dama koy nuyu ak les ak waa les les pédagogues maa ngi leen di bëggee di kontaan ci ñu baax a euh, la nga def keroog ci ñun rëy na ñu ngi kontaanaat ci yow baax a baax maman Diène ba tanaan la du guleet ndax nag yàgg nga ko def macha allah. Mm. guddi incha allah Diène ba jooyu xool dina am ci rajo Futur mm, Média xam nga ne lu ay di njàmbat lu deful waxul li ñuy waxtaanee bokk na ci li nga xam ne moom la ñëpp may wax nag jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk seen biiri kër mm-hmm. parce que léegi dëkk bi ndagam chauffeur yi wóolootuñu leen comme ni ñu koy faral di waxee ah ñiy des ci kër gi mooy loolu mm. ku ñuy tëdd ci na nga fanaanoo sifflet yaakaar <laughs> parce que bu benn waaye ma ko wax di ku ciy tëdd daal da nga fanaanoo sa sifflet boo gisuloo xam balaa ñu laa reen di di nga sifflet ba ñëpp dégg la <laughs> kon nag nañ nañ ci bàyyi xel bu baax a baax tey ñaan yàlla na fi yem yàlla nekk loo xam ni que ni buñ ko fi déggati xale yi ñu leen di ñaanal bu baax a baax ñu bàyyi bàyyiwaat xel mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi <laughs> un réel plaisir quand même di partager plateau bi ak yow. Mhm. Euh, bala ñu dem ma remercier ki nga xamante ni mooy Tata Fatsi moom mi jaax ci mhm. fulaar yi. ak euh, ki nga xamante ni moom habillé tey muy ji haute couture monsieur et madame Dabo ñu ngi fële si presse seen numéro téléphone di 77 633 40 68 donc euh, madame Dabo ji maa ngi koy nuyu di nuyu sunu chef de quartier bu cité assemblée ak jabaram. Mhm. ñoom dañuy teewlu émission bi nee na ma su ma su jotul sama yàq jey na ba xam naa du ma mën a ñëw tax sama pono feeram donc monsieur Guèye <laughs> maa ngi koy wax ni yàq bi mi ngi ñëw ñu ngi leen di euh, jox rendez-vous lundi incha allah jay na ba pour beneen plateau ce sera avec plaisir <laughs> en tout cas merci pour euh, riz au bi kon c'est c'est agréable nee naa ni nga mënee joxe lekk yal na la euh, loolu yëpp fekk kon ci ci àjjana kon nag mbokk yi fii la ñu yem ak yéen yow adew yooyu mujj <laughs> yow de Ahmed Diallo noonu ci sa kanam laa ko bëgg gërëmee jéena ba Euh, Ameth Diallo day nit ku baax ndax li may sol lépp bu fekkoon damay fay ñaw dafay metti ci man mais Ameth Diallo Maris Couture maa ngi wax soppe si dina ma xamet yëpp ni mu rafet du ñaw xanaa jigéen pour jigéen da koy ñaw ah, moom la gën a mën ah. ngeen dem mu ñawal leen sama kanam kon numéro numéro mooy 77 77 414 414 51 51 51 414 51 51 di gërëm it Omar Sène mhm. moom itam ma nga ma nga HLM mhm. euh, am naa mbégte ci moom li li ma sol ci màggal gépp Ahmed Diallo Maris Couture yal na yàlla barkeel la yàlla yokk sa teraanga ak sa xéewal mm-hmm. euh, yaa maa ngi lay bégee lool mm-hmm. maa ngi euh, waaye nag euh, Alfi mbokkam yi nga xam ñoo nekk Ndar mm-hmm. ñoom ma jaañ Njaay gàmm gi nga xam ni ñu ngi koy defal seen wéyjur di mbokk ñoom Alfi loolu it ne ma ma wax ko ci sa kanama ah. soxna ay da si da baax bisam bi le 3 décembre la ca mhm. Tiwaawoon quartier Cheikh bu sëñ bi Mansour bu Alaaji euh, euh, li ci des ma ma wax ko ci. waaw ci ci ah. plus ah. de sunkaru uh-huh. soxna sunkaru. Uh-huh. soxna soxna sunkaru ci Suède. seen conférence bu mag bi ñuy def. waaw di le 3 décembre. man mii maa koy def yi. Uh-huh. ñu fekk ma Suède. de toute façon man a ak euh, yow dañ ciy ànd ak mais oustaz Pape Hann damay nuyu tamit sa kanam soxna Astou Mbacké euh, bu Cheikh Gaynde Fatma. waaw moom voilà maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. di ko wax sama njaatige voilà macha allah lépp euh, neex na teraanga gi bari na lu ñun përi ñu naan tëddungal kon lépp mat la macha allah yal na yàlla moom kon may féex may la itamit xéwal gu saawaan baawaan ba ñun ñëpp macha allah ñu mën cee xaj kon nag mbokk fi la ñu yem ak yéen ci yeewu leen ajuma ji demoon yaakaar ne amoon ngeen mbégte ànd ak ñun léegi di gërëm nag bu baax xam na ma koy defee euh, saa su ne équipe bi ma àndaloon euh, du ma fàtte nag euh, Gervais Yao kon le caméraman de TV5 ni ko Pape Cheikh di waxee di gërëm bu baax Xaadim mu nga xamante Xaadim sama mos la Xaadim sama xarit la du tamit fàtte ki nga xamante moom mooy nekk ci nuyu bu baax a baax ñi ne ci suuf nag euh, ngaala euh, tamit euh, maa ngi koy nuyu di nuyu tamit ki nga xamante moom mooy Mao Cissé gërëm leen bu baax a baax ci liggéey bi mais nag mention spéciale comme d'habitude à à Pape Doudou waaw c'est vrai toog bu sëñ Fallou mi nga xamante ni moom looy def son yu yu baax yi ak branchement yu baax yi toog bu sëñ Fallou mais comme d'habitude ñu jeexalee mention spéciale à Pape Doudou il fait un travail remarquable dans Yeewu Leen voilà on se donne rendez-vous inchallah ak Bijou Ndiaye on vous souhaite à l'écouter et à, à regarder bien sûr les programmes de TFM. fàllu am maa bëgg fàllu yéen a bëgg fàllu am maa bëgg fàllu yéen a bëgg fàllu am maa bëgg fàllu yéen a bëgg fàllu am maa bëgg fàllu yéen a bëgg fàllu am maa bëgg fàllu yéen a bëgg fàllu am maa bëgg fàllu yéen a bëgg fàllu maa bëgg fàllu yéen a bëgg fàllu am maa bëgg fàllu yéen a bëgg fàllu am maa bëgg fàllu mbokki mi noonu ñaanati borom bi subhanahu wa taala yàlla mi am jàmm salaam sutura àdduna ak alaxira yal na yàlla doolu ñu ko defal ñaanal mboolem xalif généraux ñi ne ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi lool te wér lool ci darajey sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réew mi moom itam ñaanal ko euh, yàlla yokk ko dëgëral nuyu borom kër gi moom itam yàlla gën ko barkeel mbokki mi noonu ñaanati borom bi subhanahu wa taala sunu cofeel ci sayyidina Muhammad saa yu xëyee ñaan ko moom yàlla mu ñu koy gën a dollil bu baax a baax a baax gërëm bu baax a baax équipe bu mag bi fi bàyyi ko léegi léegi Adja Dieng ba Seydou Ba mi ngi noonu dégg nga euh, nee na ma sax léegi naa ko gërëmal soxna Faat Si mi nga xam ni euh, fulaar bi mu def euh, moo ko defal moom soxna Faat Si numéro mooy 77 612 45 02 612 45 02 soxna Faat Si mi nga xam ni musuru Adja ba Seydou Ba bu rafet boobule moo ko ko defaral ngeen dem foofu moom itam mu defaral leen mbokki mi noonu incha allahu taala bis yaa ngoog xew-xew yaa ngoog léegi rek maa ngi leen di yëgal bésu sunu sëriñ soxna Ayda Si mu Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh mu Serigne Mbaye Mansour bis bi nga xam ni bis bu mag lay doon ca Tivaouane incha allahu taala quartier Cheikh muy la 3 décembre bii ñuy dëkkmal euh, ci teewaayu Serigne Abdoul Aziz Al Amin ñaanal ko si dem ba xuraje mu yàgg fi lool te wér lool nga xam ni moo yor kàddu kër seex Seydi la Hadji Malick la Al Hadji Abdou waxoon Serigne Babacar Sy radiallahu anhu ne ko yaa yenn yan bi te won ko sàkk woo ku la aw ndax ni miig billahi si yaa bëri ngor noonee la ko Serigne Abdoul Aziz Al Amin téye ñaanal ko si mu yàgg fi lool nuyu Serigne Babacar Ibn El Hadji Mansour moom itam sunu Serigne Serigne Maodo Sy euh, ñaanal ko moom itam yàlla ko yàlla yokku dëgëral sëriñ Pape Malick sëriñ Babacar Abdul Aziz ak mboolem njabootu Cheikh Sidi El Hadj Malick sëriñ Sidi Ahmed si mbokki mi noonu incha allahu taala euh, ndokkeel euh, sëriñ Sidi Mouhamadul Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides ci màggal gu tedd gi ñu bàyyi ko sëriñ Bassirou Abdul Khadir sëriñ Mountakha Mbacké soxna Bali Mountakha soxna Assou Mbacké soxna Bali Mbacké mu soxna May ak njabootu Cheikh El Khadim gépp euh, sëriñ Abdou Samad Mbacké soxna Wali Kébé ndokkeel leen ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yonente bi alayhi salaatu wasalaam weer wi nga xam ni ci la Seydina Mouhamed gane àddina ti te mooy euh, weeru gàmmu incha allahu taala euh, dara dara du leen ump ci ëttu kër yi diina ji xam nga Tiwaawoon nu ngi koy waajal waajaay wàccaay goo xam ni jéggi na dayoo ak télévision Futurs Médias daañu ko waajal bu baax a baax xam nga kër Cheikh al Islam radiallahu anhu mboolem ko ëttu kër yi diina ji na ci biir réew mi ba cene ba kër Mame Alhaji Modou Njegéen ñoom ñëpp daañu gàmmu télévision Futurs Médias daañu fa dem wan leen lépp incha allahu taala mbokki mi noonu ñaanal leen yal yàlla yokku leen dëgëral sunkaru allahu taala sama jigéen boobu la ginnaaw ba mu nuyee sëñ Abdourahmane Bari bu bokk boggal euh, xaritam boobu di sëriñam di soppeem moom itam jiital ko ci bés ba ak waa Suède yëpp sama mbokk yee fa nekk sama soppe ya fa nekk soppe Seydina Mouhamed ya nga xam ni ña nga Suède rawatina njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick gi nga xam ni ñaga nga foofa insha allahu taala euh, ña fa di ñu xaar le 3 décembre bi lay doon maa ngi leen di jox rendez-vous ca Suède insha allahu taala bu kenn manqué euh, le 3 décembre lay doon insha allahu taala mbokki dëgëral euh, ñaanati borom bi subhanahu wa taala aljuma ji di ñëw bu kenn manqué tey jii nag maa ngi dalal ay kilifa imaam euh, Mouhamed euh, Saaw Saaj Imam Mouhamed Saaj xam nga sant séeréer séeréer moom séeréer sama jaam yi di nga dégg bu ne Imam Mouhamed Saaj moom itam di borom xam-xam di suñu wëllëre di suñu soppee mu mujjee dajeek moom kër Adja Degen Simeex Baabu ci Touba suñu jigéen boobu lay suñu xarit boobu lay suñu soppee boobu lay soppee si gina Mouhamed boobu lay yaakaar naa wiitul nunu du dañ suñu xel du dañ suñu xol Adja Degen Simeex yal na yàlla kiwér aljannaam yal ko si gina Mouhamed soppee ko ba Kër ma daaro moom itam di waajal bis bu mag a mag a mag a mag incha allahu taala suba lay doon ca Kër ma daaro soppe si dina Mouhamed ak sama xarit yi nga xam ni ña nga Thiès ña nga Kër ma daaro ña nga Aneen ña nga Ceneba maa ngi leen di woo ngeen fekk ma Kër ma daaro suba bu 5 heures jotee incha allahu taala imam maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar am naa mbégte lool euh, ñu am xew-xew bu mag incha allahu taala di la 26 ci njiital euh, Serigne euh, Baye Niass MC moom itam ñaanal ko yal na ko yàlla yokk dëgëral ma bàyyi la nga nuyoo. aouzu billahi samii alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilah allazi qaala fi muhkami tanzilihi yaa ayuha nnaas ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin wahidatin wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam allazi xarara almara sayid alkawnayni sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam wa rida allahu an xalifatihima mawlana cheikh ahmad ibn muhammad attijaani wa rida allahu taama an xalifatihima bila nisaaxin seyxul masaayiqi xawsu zamaani mawlana cheikh ibrahima Niass cheikh oustaz Pape Hann alhaaji Pape Hann ñu ngi lay ndokkeel di la nuyu di la ziyaare ci àjjuma ji di ndokkeel suñu mbokk yi ñu fekk ci palaato bi di ñaan yàlla yàlla yàlla defal ñu tawfiq ci barke Amam Lana Cheikh Ibrahima Niass. jërëjëf radiyallahu anhu imam jërëjëf incha allah taala ñu ngi ñëw léegi kon tey euh, kon tey bëgg baay Niass kon tey maa ngi koy nuyu maa ngi koy ziar bu baax a baax yal na ko yàlla yokk dëgëral xaj euh, Matar nu ngi lay nuyu mu bàyyi la nga nuyoo yow tam. asalaamaaleykum wa rahmatullah. julli si sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant Seexna Ahmada Tidiane waaye mboolem sant na ñu ngi koy sante ku ñu fekk si lëndëm jëlee ñu fa yóbbuñ ci leer Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass suñu pap jërëjëf Fall mm. Seydi Alhaji Hamza Dieye maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaar bu baax a baax bismillah aouzu bika min alcheytaani wa nafs walhawa wa dunia fa anta allahu zu ayatil kubra wa nahmadullaha wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man waala wa radiyallahu an saaxibi almawaahibi rabbaniya wal asraari alirfaniya والمقامات العلية والعلوم اللدنية الرائقة وكوكب الفتوح النورانية والأفعال الرادية المردية القطب الرباني والهيكل الرحماني أبي الفيل سمدان Ahmed ibn Mohamed Tijani maa ngi lay nuyu bu baax Haj Bab mhm. sama mag sama xarit di la ziar di la ñaanal yàlla yal yàlla kàttanal la nuyu bi ma lay nuyu nag ci lay jaarale nuyu ci mbooleem képp koo xam ne mu ngi toog di ñu janoo ak télévision bi ñaan yàlla sunu boroom xalif généraux yi ci réew mi yal na yàlla guddal seen i jiital ci mam Seex ak képp koo xam ne topp na ci ginnaawam ci barke Seydina Muhammad sallallahu maa ngi ñëw léegi donte juróomi minute la mënul ñàkk léegi nga bigal ñu ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. alxaji Hamza Dieye aja ay dëkka soppi Seydina Mouhamed yaay taalibe yi ma nga Maroc maa ngi koy nuyu maa ngi koy ziyaar bu baax a baax Adja Fatou Ka sama yaay ju tedd jooju de soppi Seydina Mouhamed maa ngi koy nuyu suba alxaji Salih An ma nga Thiès ñu ngi koy nuyu baax a baax ziyaar ko imam mm-hmm. euh, Serigne Baye Niass mu seexal islam radiallahu anhu gu kawe euh, ci taxawaayam ci euh, xadara bi euh, ci liggéey ji muy liggéeyal yonent bi rawatina Seydina Cheikh rawatina bàyyam ba radiyallahu anhu si al islam euh, bàyyiwul benn gox moom sëriñ Baye Niass tey nga ñëw teewal ko fi waaj bis boo xam ni bis bu mag lay doon incha allahu taala ma bàyyi la nga ñëw ci bis bi tuuti rek bisimilah. alhamdulilah oustaz Pape ñu ngi li ñu waroon njëkkee sax moom la ñuy def nii mooy nuyu ko moom mooy suñu Serigne Maulana Cheikh Aboubacar Ibrahim Niass. ndax euh, tey bu ñu fi teewee euh, yàlla ak moom moo ñu fi ndax euh, moom mooy suñu sëriñ mm-hmm. ndax waxkat ba dafa wax ne al muttasilu bil muttasilu yasib gerte mm-hmm. ko jokk ci ko mm-hmm. sikki ne moom moo ñu jokkale ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass nekk suñu seen ñu ànd ak ñun xam ne moo ngi koy waaj le 26 bi ñu jëm mu nekk guddi goo xam ne itam guddi gu màgg la ren di septième édition bi mu koy def di ko si ànd ak waa daayira ahlul fayda mhm. ca géejawaay guddi googu nag euh, guddi la boo xam ne euh, li tax ñu taxawal ko di ko màggale Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moom Baye moo ñu ko waxoon ndax Baye waxoon na ne daawatu rabbi an yahumma hadiyi wa kullal wara yamaduna bi sahi mhm. man Mawlana Cheikh Ibrahima man dama ñaan yàlla sama njub bi ma indi man Baye wala njub bi nga xam ne mission bi nga xam ne moom laay dox man Baye daj aduna bi ba man bu ma fi jógee sax ci zahir nit ñi di njukkal sama coono boobu ci liggéeyal baay boobu nag ci la doomam bi di Maulana Cheikh Aboubacar Ibrahim Niass jógi moom itam jël njureel ba ko Maulana Cheikh Ibrahim njur jur teg ko nële waaye jël taalibe ba di ko doxee di ko waxee ne ñëw leen waa ñun waa ahlu dañu ñu ànd liggéeyal Maulana Cheikh Ibrahim Niass ñu ne ko ci nan mu ne nañ ko taxawal guddi goo xam ne àdduna bi yépp dinañ xam ne lii guddi gii képp ku fi ñëw dina xam ne guddi gi taxawal dañ ko taxawal xasatan li Mawlana Cheikh Ibrahim Niass muy njukkal Mawlana Cheikh Ibrahim Niass fële ca Géejawaay guddi googu nag mu ko tuddee magam muy Seyda Ndey Aïssa ñu koy wax ci Ndey Ayda magam la xaritam la wala dem la ndax mosul teew la bés mu ñàkk saa teew mhm. euh, mu si mu ngi si teg beneen euh, doomam mhm. di sëtam di léppam mu Cheikh Baye Oumou Tayib. mi nga xam ne euh, ndaw la ci pay bi waaye sëriñ bi gis liggéey bu rafet bi nga xam ne Cheikh mu ngi koy def ci pay bi mhm. loolu tax na sëriñ bi ne kii itam dinaa ko boole ci ñi ma jagleel guddi gi mhm. Mhm. mu teg si euh, seen xarit mi ngeen xam ne xam ngeen ko yéen waa télé bi xam ngeen ko monsieur Abdoulaye Muntaka bi nga xam ne wax dëgg yàlla gis neen gis nañ relation bu rafet bi nekk seen diggante ak yéen mu ne dinaa ko si boole ak beneen doomam boo xam ne moom ñu ngi koy wax Moustapha mu boole leen si ñii ay nit la ñoo xam ne ay soppe sëriñ bi lañ ñoo tax sëriñ bi jël jël guddi gi jagleel leen ko waa daayira bi itam dafa am ñoo xam ne ku si nekk dafa am ñoo xam ne dafa am lu la marqué mhm. ñun gis nañ ne ñooñu ñu ngi ma xidmal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass waaye ñun ñu gis ne am na ñoo xam ne ñu ngi ci suuf itam dara taxu leen a jóg lu dul mbégte mbégte mhm. Mawlana Cheikh Aboubacar Ibrahima Niass mhm. muy Baye Mbaye MC ñu tax ñu gis ne soxna Binta Faye ku bëgg sëriñ bi la te bokkul ci kër gi waaye ci kër gi la bokk ndax sa saay bu ko sëriñ bi di présenter rek mu ngi naan Sarr taalibe sëriñ Saliou Mbacke la kon bu ñëwee ci ci biir kon dafa dafa fekk si bàyyi la bay ba la bàyyi doon waxoon hmm. wal ummatu qasdi fihimu an asuuqahum ila xadaratil bari rahim ila huna bàyyi dafa waxoon ne man li sama mébét ci jaam yi hmm. mooy ma jël jaam yépp jëme leen ci suñu borom di wul waxu la ma jël ñii wala ñi waaye dafa ne mboolem bindee fii la jël wala ummatu qasdi fihim la wax kon kon soxna Binta Faye bu ñëwee ba sëriñ bi boole ko ci ñi mu tuddee bés bi mhm. kon dafa xam ne tak teg na tànkam fa bàyyam ba waajuram bu baax ba tegoon tànkam ñu jëlaat suñu mbokk suñu xarit koo xam ne tey siège daayira bi fi mu taxaw tey mm-hmm, mm-hmm. moom moo ko moom muy mm-hmm. alaaji Sarr nekk fële ba Gàmbi ñu tuddee ko ko kooku itam bokk na ci waaye guddi gi itam Pape ann ñu ngi si woo mbooleem jullit ñi ndax guddi la boo xam ne sëriñ bi wax na ko démb ci annonce bi mu doon def bés la boo xam ne képp ku fa teew rek yàlla dafay faj sa aajo te wax dëgg yàlla nit ñi mbooleem jaamu yàlla yi nga xam ne mën nañ lu baax ñu ngi taxaw ak ñun ànd nañ ñun ci bés bi loolu guddi la boo xam ne wax dëgg yàlla luñ ci wax rek bàyyi ñoo xam ne ñu ngi ci taxaw ku mel ne euh, suñu mbokk suñu xarit Ibrahima seen def ci jàpp bu baax a baax a baax a baax bu bës bi jotee dootul am benn sago lépp lu muy def rek dafay bëgg bëgg bés bi jag te waa daayira bi tam muy góor mu jigéen kenn des ci ginnaaw waaye loolu yëpp luñ ko amee ci mbaax ak Mawlana Aboubacar la ndax bu desee ñun rek ñun mënuñ taxawal guddi gi mel noonu mais moom ci yar bi mu ñu yar moom ci tegtal bi mu ñu tegtal nii lañ war a doxalee ci biir péeg baay bi moo tax ñu mën lool moo tax ñu ngi koy ñaanal yàlla ñaan bés bi euh, suba la di si woo taalibe yi di si woo mbooleem jullit rawatina yéen waa TFM rawatina yow suñu mbokk euh, pap ndax xam ne wax dëgg yàlla am na kóllëre bu ñu takkee ndax bés bañ gisantee bërëb boobu ba léegi suñu dañuy chaque jour dañuy gën a am sawq ak mahabba ci yéen ñu ñaan yàlla yàlla yàlla taxawaay na yàlla barkeel ko ci barke alquran noonu la 26 lay doon euh, mais suñu aadama xam naa waxtu yaa ñuy bëgg xooj mais rapidement euh, ah, noonu la xanaa di santaat di santaat la nongit ma ofuge tout rawat euh, aɗa ko yoxe andoona yee te ref aussi inomu maak Ibrahim a yara i naɗ yee ten ref a ƭate baa yee adate ko xotna ten rek xanu texe xanu texin adna xanu texin alaxira te ref a ɗata paax te ref a ɗat Seexna Ahmada Tidiane ngidman a paax parce que a yara yar fo mbaax te ref bés fa andoona yee koy adna fop o yaakaara pour a teew teen feet yaam Baay laya le e, ahbabtu xata arani a kuntu wa rabbi makana wala waxta ale buga bugo tuleer oxe bo ndetanga xoos ref a soɓa mi mi refo tuleer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te saqtu xale nu mbotangam akat la sutuhanga jëmmu muhammad na feeñ kaaten sallallahu alaihi wasallam nanu mutanga muhammad sallallahu alaihi wasallam akat la sutuhanga itam jëmma jëmmes na suto kaaten mi maulana sey ibrahim fa law sawaruni fil haqiqat lam yaraw si waa sax si mahbubi atama taw kon pap alaji pap ñu ngi ziar bu baax di ñaan yàlla bés bi yàlla si yàlla def jàmm ndax dafa bés fa andoona yee o sëriñ inoxe o andoona yee ten i yaakaw te mbay na banhas tira bambay se ibrahim bis fam makaraf wina ngataxat no maage ka daltina ginda jam ñaajo bawut felir o maya faya ko fe andoona yee ma genum maage saxatu fi ndangaan sambu i mbaase tamlaki nakatna koye no eno geɗarogo o départ na bisimillahi fadid me kene alhamdoulillahi rabbil alamin i mbi bes fe nane andu naye naga mawlana cheikh ibrahima buktun yaam fagun faak xaɓi baye xarɓa xay a tewa teen fukki dow mawlana cheikh ibrahima bes bu ñuy teew guddi bu ñuy teew guddi boobu yaakaar naa ne kenn warta des ndax lan seen bàyyi liggéey na fi loo xamante ne liggéey dootu ko kaw muy Mawlana Cheikh Ibrahim uh-huh. jalla calel makkaanu ne na mbooleem haalam islamique uh-huh. a jar rek fopp a njukkal Mawlana Cheikh Ibrahim te rek so makka anu ne aduna ko potna cunga aduna ko potna tirti oxa o feet inshallah alquran ke njange uh-huh. e eh, eh, oustaz xana fi conférence fee sa la Cheikh Ousa Aliou Ndaw Malika xana mm. waaw xana fi conférence fee mm. eh, i paanga itam ke yoq na fop naxa ɓay no siriño i cooka yaam o te ref Baye Mbaye fop ten njegun mm. fop daan i paanga bo pare a garanga ñirka fop rek cooxin yaam bisuma ref o tina njukalana a faapum i njukal tan na faapum na bés fa maak fi andoona yee o tina adna pocunga mm-hmm. axlu fayda mbarno mbi mm-hmm. a yoon ten fa sababul fayda keke rek i mbu'u lay Alaaji Pape i content a paax calle ke nu jalla na haalam fe nu wo ndefara adna fe nu wo njubala adna fe yaam keke dara i mbaag e mbud geejaway mm-hmm. mbug no ley maaga mm-hmm. nda mm-hmm. a soɓa i ngaranga a nuuna roog a paax bo mbaamir roog ngaƴa nun ngaƴa nun fo tulol Muhammad sallallahu fi meeke jam a fi'na haalam fe fop i content a paax aussi jërëjëf Seydi Alxaaji Adama Fall mbokk mi noonu incha allah taala xam naa danaa ñëwaat léegi bu ko bu ñuy tàggoo rek imaam moom itam daal di wax programme bi bis ba incha allahu taala naka lay doxee sëriñ Hamza Dieye yaa ngi tàntal Sidina Muhammad def tàkkusaan boo xam ni ma bëgg tuuti rek nga wax nu lu waral tàkkusaan googu ak lu tax nga tuddee ko rasulullah daa bëgg xam nga paap ku bëgg ku la gis bëgg la Sidina Muhammad euh, sëriñ Ëmmat Njaay Aru dafa wax lu yéeme may nuyu waa Bouchra yëpp ak Serigne Mouhamadul Habib ak suñu Serigne Serigne Khalifa njaay mhm. daf ne ha inna yaasina za qad kaana badala an kulli shay'in wala arda bi taaha badal ku ma tegaloon àdduna ak li ci biiram ma bàyyi lépp wattee ko bëgg Seydina Muhammad saaxibil xawdil mawludi sallallahu pap kenn mhm. Muhammad mooy koo xam ne yàlla li mu bind bari na lool yu yi bari lool dootoo ko gisati waaye jamono day ñëw ba nga jekki saay ba ci yàgg yëg ni nit ñi li leen fi desee ci mbaax lenn rekk la muy bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala yëgoo ne nit boo doon dem ci moom saa su ne mu di la jox alal donte mbaax a tax muy def bu yàggee nga jëppe ko ndax la muy ñëw daal mhm. waaye ba mu des lenn rek muy jikkoo jikkoy mbaax sallallahu alayhi wa sallam walaw suila naasu turaaba la aw sakku ida wahaatu an yamalu wa naaw la waykat ba wax kon kenn du sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy saaxibil xusni wal jamaala mhm. wal bëjati wal kamaala wal bahaa'i wal nuuri wal wildaan wal xurri wal xuruufi wal qusuur wal lisaani shakuur wal xalbil mashkuur wal ilmil mashhuur xool ponkal mustoo ni Cheikh Sidil Xaaji Maalik ne ku ma tegaloon àdduna ak li ci biiram ma bàyyi lépp yaakaaruma julli yaakaaruma koor yaakaaruma azaka yaakaaruma aj màkka dara àjjana li ma yaakaar mu sauvé ma dugal ma àjjana leen rekk la sopp ku ma sopp sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te kat xalbun ahabu alayhi xaraamun naaru xol boo xar rek fekk ci bëgg sayyiduna muhammad yaramam xaraamal na safara kër may aljanna moo tax ñuy jekki saay rek suñu cofeel yëpp ñu jébbal ko kooku nga xam ne mag ñi moom lañ jébbaloon seen cofeel ñu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xooli mboolee yi réew mi nag ki ñu diir ne ko yow kenn rek la muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa kenn ku ci ne ci ñoom lu mu amit moo ngi ko amee ci barke rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam borom ñu dafa wax lu am hmm. bi zikri asmu wa aatali wa qalbi ilayhi bi sababati yastali la ilaha illallah ne na ci tudd turu sayyiduna muhammad ci laa siwee pab la may li nga am yonent bi sallallahu wa sallam moo ma siwal moo la siwal ku dul yow it moo ko siwal ñi ngay biggee def leen yaakaar àdduna ak àllaaxira bu ñu leen di xool suyt naa Muhammad a tax mm-hmm. nee na ci laa siiwee ci laa yëkkati ko waaye yemuma ca de turu Seydina Muhammad nekk na coo loo xam ne bëgg naa ko bëgg goo xam ne mu ngi lakk sama xol ci cofeel ci bëgg Seydina Muhammad maanaam ba koy way ci télé ba rajo nga wala ma nga koy tudd nit ñi xam ko yaa ko siiwal mais moom dafa ni tag gi ma lay tagg ci laa siwee dane tag gi ma lay tagg ci laa siwee ma lay tudd ci laa siwee tudd gi ma lay tudd lu ma amit ci laa ko amee moo siiwal ñëpp ñëpp te sama xol a ngi lakk ci bëgg rasulillah oh. waqal bi ilahi bi sababati yastali sallallahu alayhi wa moo tax Cheikh Seydil Hadji Malick gaaya gaaya bi juddoo gaaya ànd ak gaañ samp leen ñu di gaay mu oh. samp njarnde takraaya bàyyi Serigne Babacar si éducateur ba exceptionnel médecin sans comprimé kenn du Seydina Muhammad dafa dëkk ma rasulilaay rek ne ko man daal ndéem lu ma am yow rek man daal maa ngi sama njaboot yaa ko moom oh. am Cheikh Sidi Ahmad si taaw ma tippee ko rasulilaay am doomam ju tedd ja Cheikh Mouhamadul Mansour dippee ko Seydina Muhammad yëgoo ne tampon bi nekkoon ci diggante ñaari mbaggu góor Seydina Muhammad ya nga xam ne ku ko mës a gis sa aajo faju ku ko mës a gis nga xam ne moo sauvé waa jooju ñuy wax ukaasata mhm. yëgoo ne tampon boobu turu Cheikh Mouhamadul Mansour lañ ca bind tawajjah haysu shi'ta fa innaka Mansour moom laa Alaaji Maalik tuddee Cheikh Mouhamadul Mansour kon lu mu amit moom ci njaboot mu ngi ko tibbee rasulillahi boo demee ci Cheikh Mat Bamba taaw lu na jox ko caat lu jox ko Cheikh tuddee na ko ay doom Cheikh Boukounta Cheikh Limaamu Canaba ñëpp nga yëg ne mag ñi li ñu am lépp ci taraanga ak wilaaya li leen ko may leen rek la. mooy bëggiñ bëgg rasul mooy bëggiñ bëgg sayyiduna Muhammad moo tax daal mbir a ngi baaxee ci bëgg sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbir a ngi baaxee ci bëgg sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla bëgg moom la yàlla nii loo wax maa ko wax loo waxul waxuma ko moom la yàlla ni naa la dimbali naa la jàppale naa la yëkkati ba ci kaw yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. bi ko yàlla yónni ñaar fukki nit la ñu woon ñu dem ba mu yàgg nekk ñiin fukk dem ba mu yàgg lislaam bi matuñu junni nit waaye lislaam baa ngi ci 2 milliards mbaa xam nga jiiteem gu kawe ga comprendre gi mu comprendre àddina gën a baax ñëpp gën a yiw ñëpp gën a sell ñëpp gën a tabe ñëpp gor ñi moo leen gën di gor moom kat làq nga ak mat waaye doyloo woo ko isa tasafaxta naa si lam tulfi imraan xaadal mhm. kamaala faktafa borom durée du nee na kenn ku ci ne ci mbit nit ñi laq nga ak mat mais doyloo woo ko mais kenn rek laq ak mat doyloo ko mu sutna Muhammad insaan al kaamil waajangook rasulillahi si waa rasulillahi sayidil wara billahi qad xaadal kamala faktafa mu ne waat naa ne kenn rek laq ak mat ba pare doyloo ko ne kan la mhm. mu ne naaru Khadija ak Aïcha pape liet naaw liet naa mhm. yi kaporalu kaporal yi pilifooru premier yi Muhammad ibna habiballahi rasul njol ma sallallahu alayhi wa sallam loolu nag mbokk yi suba lay doon ci kër ma daaro mu ngeen ñëwee daa ngeen gën a bëgg Seydina Mouhamed a mu bàyyi la nga wax bis bi nag yow nag lii lancement la mais di nga ñëwaat beneen yoon bu gën a yaatu incha allahu taala bis bi nag mu ngoog bis bi sax yaa ko moom sa bis la Euh, xajaloo koo ci xajal rek mu dugg ca waaye yaa ko moom Seydina Muhammad ndax xam naa di ci xajal ñëpp nag ndax yow soppe Seydina Muhammad nga waaye di ci woo nag kilifa diine yëpp di ci woo itam tabarakallahu ñi nga xam ne ñooy sunu ay wayjur fa la ñu bàyyi ko di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal seen fan euh, imam ba tabarakallahu moom ma yóbbanti nuyoo démb ci yow Cheikh Ibrahima Dieye mhm. euh, ak magi dëkk ba yëpp tabarakallahu ak gox ba ña fa ne tund Euh, Kër Mor Ndiaye sëriñ mm-hmm. Bakala Ndiaye sëriñ Adama ngi lay nuyu mm-hmm. tabaarakallaahu suñu paree itam yégal ko Cheikh Mouhamadul Mounir mm-hmm. njegéen nga xam ne suñu lépp la suñu xarit la ak taalibeem bu baax ba sëriñ Malick njegeen ak soxna ma Kayta ñoo ko moom euh, sëriñ Moustapha Ñing soxna Mami Sarr soxna Zeynab Njegéen euh, tabaarakallaahu bis bi daal waaye nag sa xarit sa soppi Cheikh Oumar Ndaw uh-huh. Cheikh Oumar ku baax sama xarit lool déggante nañ sànq mu ngi lay nuyu mu ngi lay ziar uh, di bàyyi xel bis bu baax di ko yëgal di ko ñaanal ak yaayam soxna Umu Xayri Gay uh-huh. tabaarakallaahu waaye di nuyu bu baax Seydina Alioune ambassadeur Seydina Mouhamad moom mu indi mu ngi fii toog moom yonente bi rek ko ñor pap di ku baax maa ngi koy yëgal tamit tabaarakallaahu sama yaay Adja Binta Ndiaye uh, di yaayu Alsansar uh-huh. di ko ziar bu baax waaye di ko yëgal nag taalibe yi Pape Samba Diop min Cheikh Mamadou Lamine Baara Diop ak képp koo xam tàggat Seydina Mouhamad ga Mansour Gaye sa gaa yooyu sa gaa yooyu ñoom Kabou Diop Cheikh ma Cheikh Mar uh-huh. Serigne Mbaye Fall sopp da baax nga xam ne moo ko moom yéen a ko seq uh, waaye nag jàmbaari ju mag joo xam ne uh, taalibi Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul la uh-huh. di Serigne Talla Xumma uh-huh. di mu alaaji Baara nga xam ne moo koy bàyyi xel bu baax a baax dëkk ci Tëngéej waaye nag Serigne Modou Mbacké bu Serigne Fallou bu Serigne Moti Fati Khadi bu Serigne Massamba macha allah mbokk mi noonu bis baa ngoog incha allah taala suba lay doon ci kër ma daaro bu ko kenn wuute maa nga fa imaam ma bàyyi la nga tàggoo nag waxtu yi ah, xoj ah. euh, ñu ngi santaat yàlla benn yoon di mm-hmm. sant suñu mbokk mi ci li wax ci yonent bi sallam mu fàttali ma rek waxu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ne nuuruhu awwalul wujudi wujudan wa huwa aslul usuli wal mu ne nuurab leerab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu am lépp loo gis mu am rek mu ne yonent bi sallallahu alayhi ci leer googu la jóge mu ne mooy cosaanu maa bàyyi te mooy cosaanu maam yi kon tey bu ñu toogee ngay tagg yonent bi te bàyyi sax waxoon na si ne comme ni ko suñ bokk waxee walaw sawaru ni fi xaqiqa mhm. mu buñ ko foto woon ci photo appareil dëgg duñ ko duñ gis duñ yonent bi salaa salaam mhm. comme ni nga ko waxee maam mag ñëpp seen liñ waxoon mooy yonent bi lañ bëggoon moo tax mhm. arab bi wax ne ibaaruna satta wa maanaaka waahidun wa kullu ila zakal jamali yusiru mu ne ibaar yi dañoo wutee kër yi dañoo wutee mu ne waaye maanaa bi benn la ñëpp ci jëmmi benn jëmmi ci lañ jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masha Allah oustaz Pape euh, programme bi guddi gi nga xam ne ci lañ jëm mhm. euh, muy njukkal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bi incha allahu ngi jàng ay kaamil incha allah ren bëgg nañ incha allah sëriñ bi bu ñëwee ba ci biir jotaay bi mhm. ñu jàng fa xatmul quran bi ndax euh, mbokki taalibe yi fu nekk nit ñaa ngi woo da ngay toog ba nit wala ne sax man maa ngi jàng ay kaamil man ak sama waa daara li ko waral lim li loolu li mu tegtal rek mooy ñëpp ñoo ànd jàpp ci bés bi mhm. ñoom su boobaa alxuraan bi incha allah dinañ ko jàng xatm bi ci boobu mhm. boobaa suñu mbokk su euh, mhm. Cheikh Mouhamed Nazir bi Ibrahima Niass bu bi mhm. moom mooy kii euh, conférencier ba Oustaz Alioune Ndao la mu ñëpp xam Cheikh Mahi Cissé ak Cheikh Moun Hamina ak suñu mbokk suñu Moustapha Diop mi nga xam ne sëriñ bi moo ñu ko cité ba fan yi rek moom tam dina bokk ci jotaay bi Ibrahima ndaw mi nga xam ne moom lañ xam moom mooy jëf ji mooy def wax mooy def zikar bi ak groupe bi muy àndal Cheikh Mahi Niass dina si teew waaye ñu ngi si boo képp kuy wax ashadu an la ilaha illa allah ashadu anna muhammadu rasulullah ñu ngi gërëm suñu président Ibrahima ñu ngi boole gërëm waa daayira bi yëpp bu ñu limee dañuy juum waaye ñu ngi gërëm ñëpp mhm. di sant ñëpp di wax ñëpp nañ ñëw laa xam ndax bés la boo xam ne képp ku fi ñëw rek sa aaju moo say faju ñu ngi ñaan yàlla bu kenn képp ku fa ñëw rek na nga yegg si jàmm bu kenn manqué ñaan sëriñ bi tam yàlla na yàlla ma defal ko tawfiq mhm. bés baa mu mën a ñëw ànd ak mbooloom ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim ñu teral ko. baarakallah asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf imaam bëgg nañu jërëjëf euh, Fall bëgg nañu bu baax a baax. Hamza waaw ñoo ko moom te nag dañ la bëgg lool. Euh, di la sagoo tabaarakallaahu kenn ku ci nekk dana ma waa Pape est dina ñëw. ma ne ko dina ñëw incha allahu taala moo ko jàpp. moo ne la 26 te lu mu def baatin la. 26 uh-huh. euh, euh, euh, boobu daal baatin la. mooy kaw. ku fa ñëw daal incha allah sag ñàpp sa sag sab ñaag dana kawe. jërëjëf ci yàlla incha allahu taala. jërëjëf bu ko yëgal ñëpp nag. incha allah waa Kër Madaaro yëpp ñu ngi ñu cay xaar bis ba incha allahu taala suba alxaaji moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ziar ko ma nga Medina suba alxaaji Adja Nene moom itam ma nga suba alxaaji Jara alxaaji Adja Nene Ndiaye ñoom ñëpp ñoom ña nga Medina nuyu leen ziar leen Euh, nuyu bu baax a baax Assane Alaaji Assane Ndong jotal leen nuyoo moom itam yal yàlla yokk leen dëgëral nuyu Alaaji Saint-Louis ak way juróom bu baax boobule moom itam ziar leen ndokkeel leen bu baax a baax waaye incha allah taala dimanche le 27 waaye yéen todd seen conférence bu mag boobule sunu jigéen yi nekk foofu nuyu Cheikh Tidiane Diop moom itam incha allah taala danañ fa teew incha allah bu ko kenn fàtte Moulay Dieye moom itam nu koy nuyu Cheikh Tidiane Dieye euh, yal na yàlla yokk leen dëgëral ñoom ñëpp ci daraje Sidina Muhammad mbokk mi noonu incha allah taala maa ngi xaar xaar maa ngi euh, waajal Suède le 3 décembre lay doon bu ko kenn wutee maa ngi koy invité waa Suède yëpp sunu jigéen boobule Sunkaru ñaanal ko yàlla na ko yàlla dolli dëgëral ci daraja yi Seydina Mohamed daañu ñëwaat 16h ma ànd ak invité nag kilifa gu mag Ahmed Sarr bu sëñ Abdou Karim Sarr mu soxna Astou si Malick ñu waxtaanee la vie et l'œuvre de Cheikh Seydil Hadji Malick loolu 16 lay doon waajalee ko gàmb gi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa wa jërëjëf